الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله mbokk yi pour ñu wéyal programme bi ñu jàppoon ci bésu tey bi lii mooy wàll gi nga xam ni moom mooy tëcc activité bi mu doon benn dars benn muhaadara boo xamante ne ni incha allah suñu mbokk mi di suñu nekk suñu càmmoñ ñu koy tuddee Mor Kebe di koo xam ni dañu di ñu jàppale ci ñu gën a xam suñu diine moom moo ñu ko nar a defal bi iznillah waxtaan bi nag dañ ko jagleel benn tomb bu am solo muy at tarbiya tarbiyatu al islamiya maanaam éducation islamique amaana di ci dugg sax day nekk anticipation donc ñu lu ñuy def mooy bañ guddal bàyyi ko mu daal di dugg ci darsi bi ñu teewlu ko bu baax xam ni waxul ak keneen ñun lay waxal xam naa nag niñ ko bëgg a tërale mooy bu ñu demee ba incha allah seize heures quarante bi maanaam di sept heures moins vingt dañuy arrêté ñu julli suñu jullee bu ñu ñëwee dinañ ko bàyyi mu wéy ci waxtaan bi ba fu mu taxawee ñu xool ndax dina ci mën a xaj ay laaj ak leeral ba dix-huit heures incha allah ñu daal di tëj jotaay bi bi iznillah kon ñu ngi leen di ñaan teewlu ak déglu bu baax bi iznillah bismillahi rahmaani rahim alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh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 comme na ko Cheikh Mouhamad waxee li sabab jotaay bi mooy xëy na fàttalante ci wàllu diine ci benn tomb boo xam ne lu am solo la muy wàllu yar ci lislaam xëy na ki ciy wax li muy njëkk a def mooy xamal ñi ñi muy waxal ne wax ji du ku yaru toog di wax ak ñu yaruwul naan daf leen di yar mais fàttalante la jotaay bi jotaay bi fàttalante la ñun ñuy wax ñoo gën a yittewoo ñoo gën a aajowoo li nga xam ne moom la ñuy wax nekkul ne nit ki dafay jàpp ne dafa yaru toog ak ay nit mel na ku leen di yedd loolu nekkul moom mooy jubluwaayu jàngalante xam-xam ci lislaam wàllu yar nag buñ ko waxee wax nañ lu am solo ndax am solo moo tax yenn ci borom xam-xam dañ daan wax naan ku mel ne Omar masalan ibn al-Khattab anhu daf doon wax naan ta'addabu qabla an ta'allamu na ngeen jàng xam na ngeen jàng yar laata ngeen di jàng xam-xam nangeen ngeen jàng yar laata ngeen di jàng xam-xam moo tax ñenn ci ñoom dañ daan def laata ñu yebal seen doom mu dem jàng ji xam-xam dañ koy yebal ci genn góor goo xam ne ab yarkat la mu yor ko def ci moom ay jikko laata muy dem jàngi comme ku mel ni imaam Malik bi ko ndeyam yebalee ci Rabia muy Rabiatul Ra'i pour mu dem jël xam-xamam bokk na ci li mu ko wax def ne ko xuz min adabihi qabla ilmi boo demee di jàng ci moom na nga jël yaram laata ngay jël xam-xamam ndax nit ki bu fekkee xam na te amul yar xam bi du ko jariñ ndax xam-xam paaka ñaari boor la dafay lore comme nu muy jariñee bu fekkee nit ki dafa yore xam-xam te boole ko ak yar loolu du ko jariñ mais su moytuwul dafay mujju nekk loo xam ne daf koy yàqal yàqal ñeneen loolu moo tax kon xam nekk lu am am solo ba tax yenn ci borom mi xam-xam ba léegi doon wax ku mel ne masalan Sufyan ibnu Saïd ath-Thawri naan nahnu ila qalil al-ilmi ahwaju minna ila kathir ila qalil adab ahwaju minna ila kathir al-ilm ñun li ñu gën a li ñu soxla li ñu gën a yitteel mooy teggin donte lu néew la loolu lañ gën a soxal ka xam-xam bu bari mooy ne xam-xam bi mi ngi fi waaye lii suñ problème mooy teggin donte bu fekkonte ne ay teggin yu néew la ndax bu boobaa xam-xam bi lu mu néew néew doon na gën a jariñ loolu nag bu fekkee ci jamono yooyu lañ ko daan wax ak liñ amoon lépp ci ay jikko ak ci yar ak jege gi ñu jege woon jege woon ahdu nubuwa mooy jege bi ñu jege woon siècle bi nga xam ne ci la yonente bi alayhi salatu wasalaam dund jege ñi yonente bi alayhi salatu wasalaam yaroon bu fekkente ni ñoom ñoo doon wax noonu ci wàllu yar ak wàllu jikko kon jamono yu mujj yi nii waxi noppi ndax yonente bi alayhi salatu wasalam daf doon wax naan ma min yawm illa walladi baadahu charrun minhu xatta talqaw rabbakum amul benn bis buy ñëw lu dul ne bis ba ca topp moo ko gën a yées moo ko gën a bon ba baa ngeen di dajeeg seen borom àdduna dafay jëm ci jeex di gën di jege ak njeexam jikko yi di gën di soppeeku nekk nii di soppeeku jikko yi di yàqu loolu mu ngi tàmbali di gën a feeñ ci lislaam bi nga xamante ni faat nañ Omar ibn al-Khattab radiyallahu mu nekkoon bunt bi nga xam ne moo doxoon diggante jullit ñi ak fitna yi yonent bi alayhi salatu wasalaam doon wax naan tamuju ala ummatihi mawj mawj al bahr ay fitna la yoo xam ne dafay dal ci kaw xeetam di toftaloo comme ni nga xam ne noonu la ay vague géej di toftaloowee fitna bu ñëw beneen topp ca da koy wax ci yenn riwaayat ba ni fitna bu ñëw jullit bi ne haadihi muhlikati haadihi muhlikati thumma tankashif ci yeneen riwaayat daf naan fitnatun turaqi turaqiqu baaduha baadan ay fitna la yoo xam ni tar na taraay boo xam ne bu ñëw jullit bi ne bii moo may alak bii moo may alak ginnaaw bu boobu teggeeku beneen ñëw muy wax ci yenn riwaayat ne fitna la yoo xam ni dafay oyofalante mooy fitna bu ñëw day fàtteeloo nit ñi ba ko jiitu woon ndax taraayam fitna bu ñëw rek fàttaloo nit ñi fitna yu ko jiitu woon ndax taraayam jullit ñi tàmbali ci jamono yooyu ba ñu fàttee Omar di jànkoonteeg ay jafe-jafe l'islam di gën a yaatu yeneen i xeet yeneen nit di ci dugg ñépp li leen tax di dugg ci l'islam bi du benn jubluwaay du benn bëgg-bëgg ñu njëkkoon dañoo nekkoon ci l'islam fekk ko mu tumuraanke ñu ñëw nekk ci wetam di ko jàppale di ko dimbali tuur seen deret sànq seen alal joxe seen lépp lu ñu am ci yoonu yàlla ngir kattanal lislaam ak dimbalal ko ginnaaw bi bi lislaam yaatoo ci rawatina bi ñu faatee Omar ibn al ay nit tàmbali di dugg ci lislaam ay kuréel ay wax yu bees tàmbali di génn ay déggin yu bees ay gis-gis yu bees ba Ousmane ibn Affan itam ñu kompaloo jële ko fi daal di koy faat fitna bi tàmbali di gën di tas ci biir xeet xeetu Muhammad sallallahu alayhi wa ay jikko yu bees di ñëw di feeñ ci lu mel ne wàllu fenn wàllu wor wàllu tappale wàllu kompaloo ak ay mbir yoo xam ne ñi jiitu woon xamuñu ko diine tàmbali di am ay xajam-xajam yoo xam ne mi ngi ciy feeñ ci anam bu bu bu fës ak bu bër yoo xamante ne ci doxalinu ñu nit ñi la jóge yàlla tàggat ay góor depuis ci jamono yooyu ñuy sàmm l'islam di sàmm diine bi nga xamante ni moom la fi yonente bi alayhi salaatu wasalaam bàyyi loolu ay mbir yu bari juddoo ca ci faat bi nga xam ne faat nañ ko Ousmane ibn Affan radiyallahu anhu lenn ci ñi nga xam ne ñoo ko jege woon jàpp ne ñi ko faat dañ koo faat ba pare am ñu leen fat fokk ñu lijjanti faat bi ñu faat Ousmane soog a xool kan lañuy ñuy jaayante waatal ci jullit ñi am ñeneen ñu gis ne li ñu war a def mooy dañu war a jaayante kenn ginnaaw bi ñu soog a lijjanti ñi faat Ousmane ibn Affan loolu indi ay euh, tàqalikoo ci diggante jullit ñi tàqalikoo yooyu dem ba ay tàqalikoo ginnaat ci digg bi ci ay kuréel yoo xam ne kuréel yu bare bare bare la boo ko toppee bu ci nekk amaat na yeneen kuréel yu bëri yu nekk ci suufam loolu am jeexital bu bëri boo xam ne def na ko ci lislaam ak ci dégg lislaam ak xam lan mooy lislaam ak jëfe ko ak yar bi nga xam ne yonentu bi alayhi salatu wasalaam yaroon na ko saxaaba yi jàngal leen islaam déggin bi mu defoon ci ñoom nga xam ne mooy muraadullahi min alquran ak muraadullahi min yi mooy bëgg-bëggu yàlla ci lim jox yonentam bi alayhi salatu wasalaam bëgg-bëgg boobu yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngaloon xeetam yar leen ci jëfee diine l'islam dund ko ak ñoom loolu tàmbali di nekk loo xamante ni lu ñuy far la ci kaw suuf yeneen gis-gis ak yeneen déggin ak yeneen doxalin yu bari tàmbali di am ci seen taxawaay ci seen digganteeg seen boroom ñoom jullit ñi ci seen taxawaay seen digganteeg seen yonente alayhi salatu wasalaam ak seen taxawaay seen digganteeg leen fi yonente bi alayhi bàyyil lu bari ci jikko jullit ñi yàqu kon bu ñuy wax jikko ak wàllu yar bul ko dégg rek ci wàllu jëflante sa digganteeg sa moroom mais nañ ko xool ci cadre cadre boo xamante ni moom moo gën a yaatu wàllu yar ci lislaam lu màgg la lu ama am solo la euh, yonentu bi alayhi salaatu salaam daf doon lëkkale jikko ak ngëm yàlla nit ki ci anam boo xamante ne anam bu fës la ci xadis yoo xamante ni xadis yu bari la ba doon wax saxaaba yi naan leen ñi nga xamante ni ñoo gën a rafet ci yéen jikko mooy ñi gën a mat ci yéen ngëm yàlla moo ne kon ndëm ngëm yàlla nit ki dafa lëkkaloo ak ay jikkoom kéem na ngëm yàllaam toll noonu la ay jikkoom di mel loolu kon muy wane ne jikko yoo xamante ne rafetul dafa waroo ak ngëm yàlla nit ki léegi bu fekkee dañuy wax ci wàllu yar bi ñuy tuddee ak tarbiya nga xam ne boo seetee baatu tarbiya mooy an numu wa ziyaada li muy tekki ci arab mooy yokkute yokkute yokkuteg mbir parce que boo yaree mbir mooy danga koy tàggat muy yokk di jëm ci kanam di màgg nit ki bu fekkente ni yar dafa nekk ci moom yar googu ak yokkute la ci moom ci mbir yu bari su fekkante ni yar ba nekku fa ak wàññiku lay daal di doon ku mel ne Abdullah ibn Abbas daf doon wax naan taallamu al adab fa innahu ziyadatun fi l aql Abdullah ibn Abbas daf doon wax naan radiyallahu anhu jàng leen yar jàng leen ay teggin ndax yokkute la ci xeluk nit ki yokkute la ci xeluk nit ki moo tax yenn ci ñoom daan wax naan laa bi aqla biduni adab wala adaba biduni aql nit ki munta am xel te tegginuwul te amul yar waaye nit ki itam munta am yar te xeluwul bu fekkente ni nit ki amul yar xelam du ko jariñ waaye nit ki mën a yaru tamit mooy ki xa ki xamante ni xam na am xel mu ko may mu mën a xam nu ñuy yaroo waaye itam mën nañ jële ci loolu beneen déggin mooy ne nit ki munta am yar te amul diine waaye nit ki munta am diine te amul yar mën nañ jële foofu benn qaayida boo xam ne noonu lañ koy waxee ndax àq aql foofu li ñu fa jublu mooy xel bi nga xamante ni moom mooy jar nit ki ci diineem lenn ci boroom xam-xam yi njëkkoon dañ doon joxe exemple ci wàllu yar naka la mel ci nit ak diineem ñu ne boo xoolee diine dafa mel ne benn dëkk boo xam ni dañ koo protégé ak ay barrage yoo xam ne ñoo ko wër ngir noon yi bañ a agsi ci dëkk boobu yàq ko miir bu njëkk biñ ko tabaxee or la miir bi ci topp xaalis la miir bi ci topp weñ la miir bi ci topp nekk aluminium miir bi ci topp nekk ban muy juróomi miir yoo xamante ni ñoom lañu wërale dëkk bi pour nga mën a agsi ci dëkk bi foog nga toj miir bu njëkk bi teg ci bi ci topp ba juróomeelu miir bi jeex mu ne miir bu njëkk bi mooy pas-pasu nit ki ak ngëm gi muy gëm yàlla subhaanahu wa taala miir bi ci des mooy wàllu ay jaamu yàllam farata yi nga xamante ni mi ngi koy jooxe beneen miir bi ci topp muy wàllu sunan yi nga xamante ni mi ngi koy def ay mbir yoo xamante ni ay sunan la nekkul lu war mais nit ki di ko def ngir di gën a renforcer diineem di gën a yokk diineem beneen miir bi ci topp mën nañ ko tuddee xam-xam beneen miir bi ci topp ñu soo koo tuddee wàllu teggin mu ne léegi bu fekkente nit ki sàggane na ay tegginam mooy doon miir bi seytaane njëkk a fëq njëkk a daaneel ngir nag jëm ci yeneen miir yu ci des pour agsi ci diineem loolu lu muy tekki mooy nag ndakate ay teggin mooy ciiraay bi nga xam ni mooy bi njëkk bi seytaane di di tàmbalee laata muy agsi ci diine nit ki kon bu fekkente ni seytaane ñëw na fa fekku fa miir boo xamante ni bu dëgër la ngir mu dal ci yeneen miir yu ci des bënn ko pour agsi si diine nit ki lu yomb lay doon loolu di wane ne kon teggi nit ki di am ak yar yi mi yar bi muy am di ko def ci boppam lu koy jariñ la ci diineem lu koy sàmmal la diineem beneen mbir bi ci des mooy yonentu bi alayhi salaatu wasalaam xadis bi nga xam ne wax na ko ci ne inna allaha yuhibbu min ahadikum ida amila amalan an yuxsinahu yàlla subhanahu wa taala dafa bëgg ci kenn ci yéen buy def dara mu rafetal ko mu dem bay wax ne bu kenn ci yéen di rey na rafetal nu muy reyee loolu di xattaa ci mbiru àdduna muy wax ne kenn ci yéen bu koy def na ko def ci façon boo xam ne bu rafet la léegi ñu ne bu fekkee yàlla dafa sàkku ci ñun bu ñuy jëf dara ñu rafetal ko li gën a yàlla li gën a yey nit ki war cee rafetal ci jëfam mooy jëfub diineem loo xam ne ci mbiru diinam la bu koy jëf mu rafetal ko rafetal boobu dégginam lu yaatu la pour ñu tafsir ko al ihsan fi lislaam muy rafetal ci lislaam waaye liñ ci mën a wax mooy nit ki bu fekkente ni dafa seet dëgg nekk ci di ci sonn ba yàlla baaxee ko mu gis ko am li ñu tuddee ihtida muy jubbanti ko tegu ci alhidaaya tegu ci njub bu fekkente ni rafetal na ginnaaw ba nekkinam ci njub boobu moom loolu muy jëf dina ci jariñu ci anam boo xam ne anam bu gaaw la ñaareel bu ci des mooy dina ci jariñe ndax sàkk wuñ ci yow nga nekk saalix waaye dañ sàkku ci yow nga nekk saalix muslix te pour nga nekk saalix foog nga am adabu nafs mooy teggin ci sa bakkan pour sa bakkan mën a yiw jariñu ci njub boobu pour nga nekk muslix foog nga am tamit adab pour adab boobu mën a nekk luy jëlee loolu nga nekk ci yow yóbbu ko ci keneen nga xam ne dangay jariñ nit ñi ci li ngay wax di leen jariñ ci li ngay jëf di leen jariñ ci sa nekkin te léeg-léeg nekkin bi ak jëf ji ni nga ci mën a jariñee nit ñi mënoo leen ko jariñee sa xattaa ci sa wax nit ki war a moytundiku contraire bi mooy di ñaawal ci li nga xamante ni mi ngi koy def ci dëgg bu boobaa moom li muy jëf mën na cee loru ndax léegi léeg nga nekk ci dëgg mbir mi nekk dëgg waaye nam la waroon jariñee du la ko jariñee na nga ci waroon a jariñee itam doo ko ci jariñee fekk ne jëfandikoo bi nga koy jëfandikoo moom moo setul li gën a mën a taqal jëfandikoo dëgg mooy ay jikko yoo xamante ni yëwanul ay jikko yoo xamante ni rafetul mooy waral ci nit ki muy jëfandikoo dëgg jëfandikoo win boo xam ni moom ci boppam da ciy loru da ci gaañ boppam di ci yàqal boppam benn bu mu def yàq fukk yoo xam ne ci boppam la koy yàqal naka noonu itam nit ñi mu waroon jariñ ci dëgg boobu mu leen ci yàqal ci façon boo xamante ni duñ jariñu ci moom soo mooy sax duñ jariñu ci keneen dëgg boobu le loolu kenn ku nekk ñun war na ko moytundiku ndax ku nekk dafa war a ñaan yàlla nekk miftaaxu xayr ku nekk suñun dafa war a ñaan yàlla nekk caabi buy tijji lu baax caabi buy tijji yiw boo xam ne dangay jariñ nit ñi waaye doo leen lor ndax xayru naas anfaahum naas ki gën ci nit ñi mooy ki leen gën a jariñ te ki gën a jariñ nit ñi mooy ki leen gën a jariñ ci seen diine ki leen gën a jegeleel dëgg loolu kon di gën a wanaat njariñ bi nga xamante ni rafetal ci say jikko ak ci sa doxalin am na ko mooy ne xattaa dëgg bi nga nekk pour nga jariñu ci wala nga jariñe ci li la ci gën a mën a jàppale gën la cee mën a dimbali mooy nga yëwanal mooy nga rafetal say jikko mais bu fekkee jikko yi rafetul di nga ci def doxalin yoo xamante ni yaa ngi ciy sànq sa bopp mel na ku sottee ko essence jël almet taal ndax diine du caaxaan loolu daf ñuy xëcc jëme ñu ci waxtaan ci wàllu teggin ak wàllu yar bu ko nit ki di def ci lan lay tegginu dañuy wax ne bu fekkee nit ki xam na njariñu teggin ak yar ci lislaam ci ne ak yokkute la ñàkk koo am ak wàññiku la xam itam dayoo bi mu am ci lislaam dina laaj mu xam buy tegginu ci lan la war a tegginu ndax ñu bari bu ñu waxee yar rek ak tegginu dañ naan mooy bul wax nit wax ju ñaaw bul def nit lu ñaaw mbir ma dal di yem foofu waaye teggin ci kim njëkk ci ku ko nit ki war a jëmale mooy ci digganteem ak boroomam subhanahu wa taala muy al adab ma allah muy tegginu ci sa diggante ak sa boroom subhanahu wa taala ci jox ko dayoom ci màggal ko moom subhanahu wa taala ci gëm ko ndax màggal ko mi ngi denk ci ñëkk koo gëm nit ki nga xamante ne dafa weddi yàlla subhanahu wa taala gëmu ko kooku tegginewul digganteem ak borom subhanahu wa taala dëggal yonentam yi nga xamante ni yabal na leen ñu indi njub nit ñi war cee jaar ndax yàlla subhanahu wa taala bi mu yebalee ay yonent ay nit weddi leen daf ne wa ma qadaru llaha xaqa qadari id qaalu ma anzala allahu ala basharin min shay yàlla subhanahu wa taala ne ñooñu weddi bi ñu weddi yonentu yàlla yi ñàkkee nañ teggin yàlla joxuñu yàlla ab dayoom ndax wax ci wax ne yàlla wàccewul ci nit dara yàlla yónnewul kenn yàlla yabal yonentam nit ki war koo gëm dëggal ko jël njub googu yàlla subhanahu wa jox yonent bi nangul yàlla déggal ko loolu yépp ci tegginu sa diggante digganteeg sa boroom lay dellu mooy déggal yàlla ak nangul ko beneen bi ci des sellal sa diine ngir yàlla subhanahu wa taala tax ci sellal gu mag gi ak sellal gu ndaw gi léeg ñàkk teggin sa diggante ak sa borom day feeñ xataa ci wàllu sellal ak rafetal say jaamu yàlla yàlla du la tax a rafetal jaamu yàlla di la tax a rafetal loolu du teggin sa diggante ak sa borom boo xamoon màggaayu yàlla ak dayoob yàlla di nga xam ne mooy ki ñu war a rafetalal mooy ki ñu war a wan jëf keneen ku dul moom amoo àq ci jëf boobu tarfata ayn amuloo ko ci àq kon nga jël loolu nga xam ne àq yàlla la di ci sóoraale keneen ku dul yàlla ba tax nga ko koy rafetalal te moom yàlla doo ko ko su doo ko ci sóoraale ba tax nga ko koy rafetalal loolu ñàkk am teggin sa digganteeg sa borom dëgg-dëgg la beneen bi itam ci wàllu bàkkaar boo gisee nit ñi jomba def boo gisul nit ñi yàlla di la gis nga ñemee def loolu du teggin ci diggante nit ki ak boromam subhanahu wa taala loolu teggin ci diggante nit ki ak boromam subhanahu wa taala ndax ki am teggin ci digganteem ak yàlla dafay waral ci moom mu am kersa ci digganteem ak yàlla istaxyu min allahi xaq alxayaa yonente bi alayhi salatu wasallam bi muy wax naan am leen kers ci seen diggante ak seen boroom dëgg-dëgg kersa loolu la doon tekki mooy mu def ci yow muraqabatullah ba yi nga xamante ni bi yàlla daf koo tere yàlla sax daf ko sib ñu koy tuddee ay makruhat nga jomb koo def rus koo def ngir gisub yàlla ci yow subhaanahu wa taala subhanahu wa taala mu bokkaat ci teggi na diggante nit ki ak boroomam subhanahu wa taala mooy bu mu yëkkati benn kàddu di ko wax ci yàlla te amalu ko xam-xam li yàlla doon wax naan wala taqfu ma laysa laka bihi ilm am taquluuna ala allahi ma ndax da di wax ci yàlla loo xam ne xamoo leen ko wax ci yàlla loo xamul ci ñàkkee teggin yi gën a màgg ci diggante nit ki ak boroomam ci la bokk mooy wax ci jëmmi yàlla ji wala waxal yàlla ñaar yépp wax ci yàlla lay tudd wax ci jëmmi yàlla ji loo xamul walla waxal yàlla loo xam ne xamuloo ko ci àtte yàlla yi subhaanahu wa taala mu nekk mbir mu mag mbir mu rëy moo xam ne nit ñi ci jamono yu mujj yi lu ñu doyadal la lu ñu oyofal la dañuy wax ci diine waxin boo xamante ni bu jéggi dayoo la ci loo xamante ni du tegu ci xam-xam boo xam ne li ñuy tuddee xam-xam la ndax bu leen fàtte ne xam-xam dafa am am lu dul xam-xam al ilmu ma qaama xam-xam mooy loo xam dafa am tegtal mooy nit ki day xam lii xam tegtalam mu tudd xam-xam loolu ku ko amul la nga am loolu zann la du xam-xam xaw masala bu xaw a xóot lu tuuti nekkul mooy dëgg-dëgg jubluwaay waxtaan bi mais bokk na ci teggin sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala nga bañ a waxal yàlla loo xamul wala ngay wax ci yàlla loo xam ne xamuloo ko ci bàkkaar yi gën a màgg la bokk ci liñ doon wax sànq ci nit ki mën a yor njub ñàkkuk jikkoom ak ñàkkuk tegginam ak ñàkkuk yaram mën a tax njub boobu nekkaat lu koy gaañ di ko yàqal dootu ko jariñ dina feeñ ci bunt bi mooy nekk ci njub di ci jéem a góorgóorlu di ci jéem a jëfe amoo teggin waral ci yow ngay wax ci yàlla ak di waxal yàlla bis bu nekk loo xam ne xamuloo ko fekk yaa ngi def ay bàkkaar yoo xam ne min kabairi zunub te boo gisee ñiy def saxairu zunub nga yëkkati sa bopp ci ñoom jàpp ne sax waroo toog ak ñoom fekk na yow guddi ak bëccëg yaa ci ay kabaa'ir yoo xam ne ku mel ne Ibnul Qayyim daf ne moo gën a sax màgg shirk billah loolu c'est très dangereux moo tax nit ku nekk da nga war a moytandiku xam ne l'islam nit ki bu ci nekkee fokk mu tënku ci ay teggin li ñu tuddee ay adab ay adab bokkat ci teggin sa digganteeg sa borom subhanahu wa taala mooy nga góorgóorlu nekk kuy sàmm diine yàlla ji subhanahu wa taala nekk koy sàmm loolu nag nit ki balaa ma koo mën a taxawee fokk mu am ay jumtuwaay yoo xam moom lay jëfandikoo jumtuwaay yooyu nit ñi tolloowuñ ci ñi ci wax ñi ci jëf ñii ci seen xam-xam bi leen yàlla may ñuy sàmm ak di jottali diine yàlla ci ko suuf loolu ci tënk ci gàttal boo ko seetloo ay usul la yoo xam ne yu bari mooy dugg ci suufam ci wàllu tegginu diggante jaam bi ak boromam subhanahu wa taala beneen bi ci des di tegginu sa diggante ak yonant bi alayhi salaatu wasalaam ci gëm ko dëggal risalaam bi nga xam ni moo gën a leer jant boo xam ne dafa feeñ leer nañ ci diggu asamaan si ne yàlla subhanahu moo ko yebal mu nekk yenent bu mu yebal ci jaam ñépp nga gëmee ko noonu dëggalee ko noonu loolu waral ci yow nga daal di nangu lépp loo xam ne joxeeti na ko loolu waral ci yow nga nangu lépp loo xamante ni moom sallallahu alayhi wa sallam joxe na ko ci njub bu fekkente ni sax na ne ci moom la jóge nga jël ko jëfe ko daal di koy gëm dëggal ko itam ne ci moom la jóge sallallahu alayhi wa sallam beneen bi ci des mooy nga dimbale ko dimbale ko ci diineem jàppale ko ci diineem di sàmm ko ak ci jottali ko mooy ñu ko tudde al muazara wa nasr bokkat ci yi nga xamante ni ba léegi sa teggin la sa digganteeg yonante boobu alayhi salatu wasalaam mooy nga wekk ko warumaal ko moom sallallahu alayhi wa sallam li yàlla waxoon ne li tuwaqiruhu mooy ngeen am ci moom tawqiir ci wekk ko moom sallallahu alayhi wa sallam ba du ngeen yëkkati lenn loo xam ne lu yàlla la di ko jëmale ci moom nga gis ne xataa teggin yi nga xam ne yàlla tegoon na ci jullit ñi ci digganteem ak yonente bi alayhi salatu seen diggante ak yonente bi alayhi salatu wasalam ci seen jamono da doon tere sax naan laa tarfa'u aswaatakum fawqa sawti nabi wala tajharu lahu bil qawl aw laa taj ak laa tajcalu duaa annabiyi baynakum ka duaai badikum bada yàlla subhanahu wa taala tere woon leen ñu koy woo sax di yëkkati turam comme ñoom ni ñu koy defantee ci seen biir ngir am ci moom wegeel ak am ci moom euh, respect boo xam ne dañ ko ko doon wan bu baax a baax ci niñ daan toogee ci moom ak niñ daan ñëwee si moom heure yi ñu daan ñëw ak loolu yëpp dañ ci daan sàmmante ak teggin yooyu la ak mbëggeel gi nga xamante nit ki war na ko koo bëgg mu féetale ko mu jëmale ko kaw ci lépp lu mu mën a doon beneen bi ci des itam mooy am ci moom euh, wegeel ba tax doo yëkkati lenn loo xam ne lu ñaaw la nga koy jëmale ci aw njabootam li nga xamante ni mooy njabootu yonente bi alayhi salaatu wasalaam li ko tàmbalee ci ay soxnaam ci ay sëtam ay doomam ak ay jege ñaaleem ñuy tuddee ahlul bayt te kenn mënu ci génne ay soxnaam moom sallallahu alayhi wa sallam ci li gën a reelu gën a doy mooy ñi nga xamante ne dañuy woote wu ahlul bayt ne soxna yonente bi alayhi salatu wasallam bokkuñ ci te ahlul beyt ñëwul ci alquran benn yoon dul ci ay jigéen ci ay jigéen rek la ñëw ci al alquran bi ci gën a fës di ayatu surati ahzab siyaq bi yépp ci jigéen soxna yonente bi alayhi salatu wasallam lay wax laata aaya bi di tudd ahlul bayt ci ci soxna yonent bi lay wax bi mu leen tuddee ba pare ci soxna yonent bi lay wax ñu ñëw ba ci liy wax ahlul bayt ñu seppi ko ne liy waxul ci soxna yonent bi alayhi salatu wasalaam duñ ci dugg loolu xata nekkul lu wér kon fonk ko fonk njabootam euh, jox leen cër bañ a yëkkati lenn lu ñaw di ko teg ci ñoom am ñu ci juumoon njuumeel bi li ko waral mooy bi ay xiiroo ŋaayee doxee ci diggante jullit ñi am ñoo xamante ni dañuy dal ci kaw saxaaba yi di leen ŋàññi ak di wax ci ñoom ay wax yu jaaduwul di wane ne ñoom ci kër yonent bi lañ bokk sallallahu alayhi wa sallam loolu waral ñenn ñi tamit ñu tuddee ñoo xamante ni boroom xel yu matul la jël ay wax yu ñaaw di ko jël di ko jëmale ci kaw waa kër yonent bi alayhi salatu wasallam mel na kuy fayu alors que ahlu sunnati wal jamaa laa yuqaabiluuna xuluw bi ifraat wala bidaa bi bidaa ahlu sunnati wal jamaa nit ki du bew ñoom tamit ñu bew ngir tontu la ci li nga def naka noonu tamit doo def mbir mu lislaam dàq ñu bëgg laa tontu ba tax ñu def li dàq dañuy digg ci lépp lu ñuy def loolu ci seen i la bokk ñoom ahlu sunnati wal jamaa naka noonu itam ay saxaabaam muy ay àndandoom yi nga xam ne ñoom ñu la doon àndal ñu dimbali ko jàppale ko ci diine bëggoon ko fu bëgg yem di taxaw ak moom fépp fu mu taxaw ñooñu itam wormaal leen ak sàmm yonente bi alayhi salatu wasalaam ci ñoom ak ndénkaan li mu joxe ci ñoom loolu bokk na ci teggin yi nit ki di am ci digganteem ak yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu bokkaat na ci ba léegi mu bokkaat ci teggin yi ba léegi tamit topp gi nga koy topp ak roy gi nga koy roy moom sallallahu alayhi wa sallam beneen tomb bi ci des xëy na moo gën a nekk lu gën a yaatu ci waxtaan wi muy teggin ci diggante nit ki ak jaamu yàlla yi muy teggin nga xam nit ki dina ko am ci digganteem ak jaamu yàlla yi eh, subhanahu wa taala loolu xëy na dañuy bàyyi ba julli ba noppi ñu soog cee xaabaabal comme ñu ngi nodd bu ko defee ñu bàyyi mbokk yi ñu jàpp bu ñu jullee ba pare ñu soog wax ci teggin yi nga xam ne mooy teggini nit ak ay mbokk jullitam wala bokk ak moroomi nitam wallahu aalam rahim alhamdulilah rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala ashraf almursalin nabiyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain lu ñu waxoon ci al adab muy wàllu yar wa tarbiya ci nit ki tegginu digganteem ak boroomam subhaanahu wa tegginu ci digganteeg yonentam bi alayhi salaatu wassalaam mu bokk ci yi nga xam ne xëy na war nañ ko fàttali ci tegginu ci digganteeg yonent bi alayhi salaatu wassalaam bokk na ci ba léegi di julli ci moom di bari di julli ci moom rawatina bu fekkee dañoo tudd tudd turam ci jataay boo xam nit ki da koo teewee muy julli ci moom sallallahu alayhi wa sallam loolu tam ba léegi ci teggin nga xam ne jàngale na ko suñu diggante ak moom ci la bokk sàmm ko ci njabootam ba léegi tam ay soxnaam bokk nañ ci bu baax a baax bokk na ci anam bi muy gën a feeñee mooy ne dafay xaram ci bépp jullit bu mu mën a doon muy takk soxna yonente bi alayhi salatu wasalam ci ginnaaw dundam loolu tamit bokk na ci ay teggin donte mbir la moo xam ne mu wees la mais baax na nit ki xam ko mu des teggin yi nga xam ne mooy aju ci nit ki digganteem ak jaami yàlla yi loolu bu ñu ko waxee bi ci njëkk mooy teggin digganteem ak boppam laata ñuy wax digganteem ak nit ñi tegginu bi nga xam ne ki daf koy tegginu ci wàllu yar wàllu teggin digganteem ak ak boppam lu baax la nit ki xam ko bu baax ci nekkinam moom ci boppam naka la war a góorloo ci yar bakkanam ci ay mbiri boppam yi nga xamante ni moom la concerné ba mu tënku ci ci loo xamante ni yar la ba mu tënku ci ci loo xam ni yar la loolu bu boobaa mën nañ ko delluwaat ci ay cëram bi ci njëkk di xol bi nga xam ne moo nekk ci moom mu fexe ba xol boobu mu def fa teggin def fa yar bi nga xamante ni li ci li ci gën a am solo ci ay jumtuwaayam bokk na ci xam-xam bi nga xamante ni leer la mu fexe def xam-xam boobu ci xolam fexe di def ci xol bi loo xam dafa koy jariñ di takkoo ak nit ñoo xamante ni dañuy def ci moom yar fexe ba li nga xamante ni mooy jóge ci biti di ñëw ci xol bi nekk loo xam ne lu koy amal njariñ lay doon te du yàq te du ko lor boo waxee xol daal di wax yeneen cër yi nga xam ni ay jumtuwaay lañ yoo xam ne dañuy jël ci biti di ñëw di sotti ci xol wala ñuy jël ci xol di génne ci biti mooy lu mel ne làmmiñ ak lu mel ne bët ak nopp bu fekkee nit ki fas yéene na góorgóorlu yar bakkanam def ci bakkanam yar def ci bakkanam teggin fokk mu sàmm xolam fokk mu fexe def ci xolam lu baax mooy tandiku lu bon di ci dem ndax inaa in inain billadi fihi yandaxu ndab loo tuur la ca nekk mooy sotteeku ndab loo wëlbati rek la ca nekkoon moom mooy sotteeku ci suuf nit ki li nekk ci xolam mooy li feeñ ci ay jëfam nit ki mënul yaru bu fekkente ni yar boobu nekkul lu lu nekk ci moom loo xamante ni lu mu def ci xolam la bu ko dee jëmmal ci kaw itam te nekkul lu lu lu sax lu lu ñor ci biir xol bi takalluf lay doon maanaam benn mbir la bu muy def tazahur di ko wane ci kaw mais li liñ naan jikko du gën a bu toogee quelque temps nga gis jikko yu bon yi tàmbali di feeñ jikko yu bon yi tàmbali di génn loolu itam ba léegi day war daf ñuy yóbbu ci li ñu tuddee al amradu nafsiya muy amradul qulub muy fexe xam feebar yi nga xam ne mooy feebari xol yi tabbi ci xol nit ki di yàq jikkoom di yàq diineem nit ki fexe di di dindi di buddi di wétt feebar yooyu ci biir xol bi di ko sànni ci bitti feebar yi nga xam ne ñu tuddee amradul xulub lu mel ne al ujb gis sa bopp al kibr rëy rëy loolu ay feebar la yoo xam ne dafay nekk ci xolu nit ki al xeqd am keñaan al xasad nekk ku ku ku ku soxor koo xamante ni da ngay da dangay gis nit am dara nga soxoree ko ko alxasad mooy soxor bi nga xam ne ngay gis nit am dara lu baax nga soxoree ko ko yooyu ay amradul xulub lañ koy tudde yoo xamante ni min aswa il axlaaq ci jikko yi gën a bon la bokk dëppoowul ak yar dëppoowul ak jikko bu rafet bu fekkee nit ki bëgg na ci boppam yar nekk nit ku am adab dafay fexe feebar yooyu nga xam ne feebari xol la mu koy nemmeeku ci bakkanam di ko dindi ñaareel bi ci des mooy bañ di fàggu luy indi feebar yooyu ci bakkanam loolu muy moytandiku wasaayil yi nga xam ne mooy lu mel ne bët lu mel ne làmmiñ lu mel ne nopp nga xam dafay mën a jël ay feebar di ko tàbbal ci xolam mu koy mu koy moytandiku parce que la yastaqimu al mar'u hatta yastaqima qalbu wala yastaqimu qalbu al mar'u hatta yastaqima lisaanu comme ni mu ñëwee ci xadis boo xam ne ci musnad al imam nit du mën a jub te xolam jubul nit du jub te làmmiñam jubul xolu nit du jub te làmmiñam jubul bu ko defee nit ki xam loolu di ko moytandiku rawatina bu dee dee dund ci société boo xam ne jikko yi dafa yàqu loolu waxtaan bu yaatu la ci wàllu yàqute jikko ci société mais ñun li ñuy teel mooy nit ki ci boppam ka fard min afradil mujtamaa mu nekk benn individu nekk di dund ci biir société bi ñu wax ci moom ci boppam mi nga xam ne dafa bëggal boppam mucc bëggal boppam texe tey ak bu ëllëgee rawatina ngay dund ci société boo xam ni dañuy dund ak di feeyi ak nuur ak lab sax laay wax ci jikko yoo xam ne jikko yu yàqu la jikko yu réer la nit ki nekk ci société boobu nga xam dañ naan boo bëreewul ñu bëre daanu sa kaw li la wër yépp nekk ay mbir yoo xam ne lu ci nekk mën na la yàqal say jikko léegi boobaa nit ki mu ubbi ay bëtam moytandiku xam ne dafa am lu cher lu mu yor loo xam ne daf ko war a sàmm ay nit nekk ci wetam di bëre dafa war a moytandiku ñu bëre dal ci kaw mu toj dafa war a moytandiku ñu bëre dal ci kaw mu yàqu loolu mooy diineem diine boobu wax nañ ne seytaane ci yi muy jaar pour agsi ci pour yàq ko bokk na ci ci gën a am solo mooy say jikko bis bu say jikko yàqoo mooy xamal ne sa diine mi ngi ci danger ndax jikko bu rafet mënul dund diine ci anam bu rafet loolu mënul nekk léegi bu fekkee nit ki xam na loolu kon loolu dafay waral mu bañ a nekk sabab bi nga xam ni moom mooy sabab lu yàggale seytaane ci xolam lu yeggale ay jikko yu bon ci xolam léeg-léeg nit ki di fàggu loo xamante ni bu ko wuyusee yàqute la koy jural li ñu naan junj nag doy na borom xel junj doy na borom xel masalan nekk magum jëm xam ne seetaan film baaxul ngay toog télé di seetaan film di seetaan loo xamante ne ay caaxaan la bu jeexi jeexitalee ci yow ba def ci yow ay jikko yu yàqu bul tooñ kenn yow yaa tooñ sa bopp bul yedd kenn yow yaa yedd sa bopp sa bopp nga war a yedd di fréquenter bërëb boo xam ne nit ñi ngi fay toogal ak nit ñi ngay nekkal di jëflanteeg ñoom ay nit la ñoo xam ne amuñu ay jikko amuñu diine ngay jaxasoog ñoom ngir topp lu ma xaw ma lu ma ko mën a tuddee ba taqee fa ci ay jikko yoo xam ne ay jikko yu baaxul la te saa bu jikko yi tàmbali di taq jikko ji tàmb diine ji tàmbali di xajam diine ji tàmbali di feeñ di di di dellu gannaaw donte borom du ko nangu fil xaalib kii def loolu du ko nangu day utal boppam ay ay ay faux prétexte yoo xam ne moom lay dalalee xelam fekk mi ngi yàq ay jikkoom diineem di dellu gannaaw yéen a ngi doon waxtaanee ci suba ak Cheikh Mouhamed allah yaxfaduhu ci wàllu euh, muqawimaatu thabat wala wasailu thabat ala al istiqama yi saxal nit ki ci njub bokk nañ ci gën a am solo ay jikko yu rafet nit ki jikko yu rafet chance la ci moom boo xam da koy sàmmal diineem léeg-léeg nit mucc ci ay fitna yu bari ci diine fekk jikkoom yu rafet bokk na ci lu ko gën a jàppale ci loolu fitna am nit kii am nu mu doxalee ci sababu ay jikkoom yu rafet yàlla subhanahu wa taala sàmm ko mu mucc ci lu bari ci fitna jooju nit tamit léeg-léeg mu nekk ci diine xër ci lool am ci xamaas àgg ci fenn fi mais dem ba jamono nga gis lu bari ci ci diineem dem ngay laaj di poser question lu war a tax waa ju jàmbare woon nii dem ba tollaat fii ci diine dem ba sàgganee nii boo ko seetloo di nga xam ne ñàkkoon a jox yitte jikko ak ñàkkoon na ñoŋal ak aar ak fekk ay jikkoom loolu moo ko yóbbee lii moo tax jikko yi boo ko boo ko dee sa sàggu sàgganee yaa ngi def lu loo xamul danga nga ko war a fekk sàmm ko say jikko kon nit ki fokk mu yittewoo loolu di jàng xam-xam jikko yi bul yaakaar ne da ngay euh, jéem a fexe yar sa bakkan ci noppi wax lu soo nekkul lu baax la sàmm say bët ci lu xaram lu baax la sàmm sa nopp ci lu xaram lu baax la sa làmmiñ doo ci wax loo xamante ni lu lu yellu la lu baax la mais loolu itam war na fekk fekk mu am laytaay bu dëgër mooy xam-xam ndax léeg-léeg bu nit ki bëggee yar boppam te tegu ko ci xam-xam seytaane foofu la koy sànkee ndax kam min mu mu muridin lil xayri laa yudriku bari na kuy seet lu baax di ut lu baax wër gëm koy wër ci la ko seytaane di sànke wër ga muy wër lu baax ca la ko seytaan di sànq parce que tegu ko ci xam-xam dafa bokk min asbaabi dalaal nga bëgg lu baax waaye tegoo ko ci xam-xam bëgg lu baax tegoo ko ci xam loolu moo sànq an nasara naka noonu tamit firaq yi sànku ci diine ci lislaam ci yittewoo tàggat bakkan ak yar ko te teguñ ci ko ci xam-xam ñu koy tuddee ahlu tasawuf wal ibada ñooñu loolu moo leen sànq moo tax seen réer nuroo ak réeru nasara jublu rek ci wàllu yar bakkan ak tàggat ko te tegoo ko ci xam da ngay sànku da réer kon loolu tamit foog nit ki bañ koo bàyyi xel bañ koo bañ koo sàggane di ko bàyyi xel di jàng diineem di ko yittewoo di ko jàng ci anam boo xam anam bu mucc ayib la jàng dafa am lu ñu tuddee fiqhul fiqh xam-xam dafa am xam-xamu boppam xam-xam dafa am beneen xam-xam boo xam ni moom nga war a xam pour xam nu ñu koy xamee jàng dafa am nu ñuy jànge noonu nu ñuy jànge da nga ko war a jàng laata ngay jàng ñu bari ci ñun dañuy bëgg a jàng waaye duñ jàng nañ nañuy jànge moo tax dinañ yàq lu bari ci waxtu mais duñu am njariñ ñu am xam-xam boo xam ni xam-xam bu leen di amal njariñ lay doon mu yittewoo ci wàllu yar boobu nga xam dina ko yar bakkanam def ci bakkanam ay jikko yoo xam jikko yu rafet la lu mel ne oyof ak tawaadu lu mel ne nekk nit koo xamante ni da nga yéene ñëpp jàmm tuhibbu li nafsika ma tuhibbu tuxibba lil axarin maa tuxibba li nafsik nga bëggal nit ñi li nga bëggal sa bopp di tàggat sa bopp ci yu mel noonu di di tàmmal sa bopp tabe ak di joxe tàmmal sa bopp ay jikko yoo xamante ni jikko yu rafet la di tàmmal sa bopp dëggu loo def nga fexe looy wax nga fexe ba li ngay wax nii nga tënk ci sa bopp xam ne lii wax Ibnul Qayyim day wax ci alfawaid di wax ne ummul axlaaq sayyi'a mooy ak alkazib mu ne jikko bi nga xam ne mooy ndey jikko yu bon yi mooy fen mu ne fen bu xasee nekk ci nit ki jeex na jikko bu bon booy wër mën nga koo fekk ci moom fen moo tax nit bu bëggee am ay jikko am yar bokk na ci yi gën a am solo yi gën a fondamental yi nga xam ne war na ci yar bàkkanam mooy dëggu di wax dëgg di ko jëf di ko jëf fexe ba yar bakkanam ci loolu mu nekk lu ko soxal mu bañ a fexe ba du wax den loo xamante ni lii amul loolu lu am solo la te lu nit ñi ñàkk la ci jamono juñ toll nii nit ñi waxatuñu dëgg ñàkk wax dëgg googu dafay feeñ même ci seen jëf dëggootuñ ci seen i jëf mu ñàkk am amaana ñàkk am kóolute yonent bi alayhi salatu wasalaam nee na kóolute dina dem ba jóge ci kaw suuf ba dañ naan demal ci kër sàngam demal ci giir sàngam am na benn waay bu fa nekk boo xam ne bu wóor la dinañ dem ba jamono kóolute dina fi ñàkk ba dañuy tegtal nit naan ko boo demee dëkk sàngam ci giir sàngam am na benn waay bu fa nekk box bu wóor la ku am kóolute la moo tax mu waxoon ne bi ko waaji laaje na ko ma mata saa ya rasulallah mu ne ko ida duyaati al amaana waa ji bi mu ko laajee na ko kañ la bisu penc di ñëw mu ne ko bis bu ñu sànkee kóolute loolu lu àdduna di gën di jege ak tukkeem di gën di jege bis bu mu fiy jógee nit ñi di ko gën di ñàkk te ñàkk am principe boobu ñu tuddee dëgg muy as-sidq loolu moom moo ko moo koy waral ñàkk am sidq bokk na ci li gën a mën a yàq ay jikko dëggu ci diggante nit ki ak boroomam subhaanahu wa taala dëggu ci digganteem ak boppam bañ a nax boppam dëggu ci digganteem ak ay moroomu jullitam wala bokk moroomi nit ñi kon nit ki war na fexe di yar bakkanam ci genre jikko yu mel noonu al ixlaas mu nekk loo xamante ni itam pour nit ki gën koo mën a am bokk na ci li ko ci gën a mën a dimbali mooy dëggu boobu jiitu ci moom ndax ixlaas dafa nekk loo xam ne ay bunt yu sew la am ci biir li ñu tuddee sellal sa diine ngir yàlla subhaanahu wa taala tax buntu la boo xamante ni buntu la bu doy waar boo xam nit ñi war nañ koo gën a yittewoo ci anam yu bari jullit bi nga xam ne bëgg na tarbiya tarbiyatu nafs bokk na ci yim war a gën a dimbali bakkanam dimbali ci boppam mooy fexe ba yar bakkanam ci sellal li nga xam ne mën nañu tuddee xuduudu nafs mooy ay cëri bakkan nga dind ko ci sa bakkan li ñu tuddee cëru bakkan cëru bakkan mën nga sax di waxtaan ci diine di ko ci séntu yaa ngi wax nit ñee ngi toog ma yaa ngi ciy am ay cëru bakkan cëru bakkan mooy loo xamante ni sa bakkan moom moo ko jagoo li wàllam la ci waxtaan wi ci siiw booy siiw wala yéem wala nit ñi di yéem wala gis bu la fa nit di gis wala xam bu ñuy xam ne kii mooy diw moo ne xëy na waxtaan bi yàlla moo ko lal mais cër boobu nga ci jox sa bakkan yàq na ci lu bari loolu ñu njëkkoon dañu ko daan sóoraale bu baax ci seen mbir lépp lu ñuy def te yàlla tax dañ ci daan suuraal li ñu tuddee xaddu nafs muy alxududu nafsiya moo tax dañ daan yar seen bakkan seen kémtalaay kàttan ci di nemmeeku lan moo tax ñoom ñuy jëf lan moo tax ñoom ñuy jëf dañ ko daan bàyyi xel bu baax a baax loolu moom moo taxoon ñoom seen jëf nekkoon lu am barke loolu moo tax yàlla barkeloon seen jëf loolu moo taxoon ci lu bari tamit fi ñu àggoon ñu mën fa àgg mais léegi nit ñi lu bari ci li ñuy jëf li ci ëpp pour pourcentage bi gën a bëri ay xudus nafsiya la ay xudus nafsiya la ay cëri bakkan la li ñuy jox suñu bakkan ci suñuy jëf dafa bari te jëf yi ñuy jëf suñu bakkan amu ci dara lépp yàlla moom moo war a tax mais loolu yar bu sori la laaj beneen bi ci des mooy yar ci wàllu bakkan ci wàllu sa bakkan fexe ba maîtriser say cër bokk na cër bi gën a am solo boo xam nit ki war na ko jéem fexe maîtriser ci boppam te bu ko maîtriser wul bu yeboo moo xam ne maîtriser wul mbirum diineem seytaane da ko not ba léegi ci diineem mooy làmmiñam ab bën bën bu rëy lay def ci ndab li nga xam ni fa ngay denc say jëf sa làmmiñ bën bën boobu boo ko fàttulee wóorul bu ëllëgee boo demee tijji sa ndab di nga fa dara wóorul boo fàttulee bën bën boobu nga xam ne sa làmmiñ dina ko def ci ndab li ngay denc say jëf dara wóoru la ndax bu ëllëgee boo demee boo tijjee di nga fa fekk jëf soo moytul sax di nga fa fekk lu doy waar soo moytul di nga fa fekk loo xam ne lu doy waar la nit ki fokk mu yar bakkanam ci sàmm làmmiñam si di wax loo xamante ne lu koy jariñ la bu fekkente ne amalu ko njariñ mu noppi loolu mooy principe bi ñu yonente bi alayhi salatu wasalaam jàngal ci man kaana yuminu billahi wal yawmil axir falyaqul xayran aw liyasmut mu nekk principe boo xam ne bu yomb la boo xam nit ku nekk war na ci yar bakkanam mooy lu muy wax mu xam ne lii lu koy amal njariñ la bu fekkee amalu ko njariñ mu daldi ci gàttañ lu te làmmiñam ba léegi bët sa bët itam bu fekkente ni amuloo ci mën-mën amuloo ci kàttan ci fan ngay jëmale sa bët ak foo ko dul jëmale lu bari ci sa diine di nga ko ñàkk ndax dañuy dund ci jamono joo xam ne jamonoy fitna la bu fekkente nit ki téyewul bëtam yarul bakkanam ci am maîtrise ci ay bëtam lu bari ci dineem dina ko ñàkk ndax xolom moom mooy sonn xolom moom mooy feebar te feebaru xol boobu ñun lu ñuy dund la ci yu bari yoo xamante ni feebar yooyu daf ñu koy defloo ba pare malheureusement li ci gën a léeg-léeg naqari ci xol mooy dañuy nax suñu bopp nit ki day foowe diineem seytaane dem ba ndar ko képp ëpp ko kàttan ba pare di nax boppam di jéem a utal boppam ay lay rawatina ci buntu wàllu jigéen yonente bi alayhi salatu wasallam bi muy faatu lan la wax daf ne ma taraktu fitnatan baadi adarru ala alrijali min annisa bàyyiwu bàyyiwuma sama ginnaaw fitna bu gën a rëy bu gën a diis ci góor ñi fitnay jigéen mu doon wax naan awalu fitnatin kaanat fi bani israila hiya fitnatu nisa aw kama qala sallallahu alayhi wa sallam fitna bi gën a bi njëkk a tàbbi ci banu israil mooy fitna wu jigéen fitna wu jigéen bu ci nit ki xasee fitna wu ay jikkoom dafay yàq néew na nga gis waa jooju làmb ko mu nekk nit kuy wax dëgg waxkatu dëgg fil xaalib loolu bokk na ci li muy njëkk a ñàkk bu fekkee nit ki commencé na am fitna ci buntu jigéen bokk na ci li muy gën feebar bi njëkk tàbbi ci xolam mooy fenkat bu mag lay daal tàmbali doon ak tappalekat boo xam ni du wax mukk dëgg li muy def du ko wax mukk te lépp ut ay lay pour nëbb feebaram moo ko koy yóbbee ut ay lay di pour nëbb feebaram du accepter ne dafa feebar du bëgg tamit ñi mu nekkal xam ne dafa feebar pour nga bañ am feebar boobu mu lay yóbbu ci euh, ci doxalin ak jikko yu suufee yooyu ak di yàq say si say jikko fexeel ba ñoŋ bi la islam ñoŋalal ci sa digganteeg ñoom nga sàmm ko l'islam li ñu jox ci ay jàngale ak ci ay yar ci buntu boobu wallahi alazim boo koy xool da nga yéemu ci yàlla bakkan yooyu nga xam ne sa bakkan daf koy bëgg ba tax ñu bari di tàbbi ci ay piège yu seytaane rawatina ci buntu jigéen bu fekkonte ni ja tënku nañ ci ci yare yonent bi alayhi salaatu wasalaam kon léegi wax ji jeex na mais malheureusement seytaane mën nañu ci mën ñu ci ba léegi doyadi gu bari la nga la la def ci ñun bunt boobu ku ci yarul sa bakkan doo nekk góor gu mat mukk waxatuma la nit ku mat ci wàllu diineem loolu nag am na lu bari lum laaj ci doguk nit ki ak farloom ak jël ay matuwaay ak lu bari mu xañ ko bakkanam ci yoo xam ne bakkan bi daf koy bëgg ndax bakkan fokk nit ki jëm ko yar jubbanti ko nit ki du topp rek bakkanam ci lu ko neex ak ci li mu bëgg fekk si ko ci di ko jéem a utal ay lay di ko jéem a utal ay cuub yoo xam ne moom la koy cuub ba nit ñi rafetalal ko ko wala ba nit ñi ànd ceeg moom léeg-léeg ci turu diine fekk li ngay def maasiya la mooy yàlla la fokk nit ki bëri ak bakkanam def mujaahadatu nafs pour fexe ba bunt boobu mu ñoŋal ci diineem ñoŋal ci ay jikkoom mu buntu jigéen loolu buntu la boo xam nit ki bu fekkee bëgg na des ak diineem na ci gën a góor bu baax a baax yonente bi alayhi salatu wasallam xataa julli dafa naan xayru sufufi rijal awaluha wa xayru sufufi nisa axiruha loolu borom xam-xam yi ni ñu ko expliqué du lenn lu dul gën a sorente ki gën a sori ci góor ñi jigéen ñi fa taxaw di julli moo gën ki gën a sori ci gu ci jigéen ñi góor ñi fa mu taxaw di julli moo gën xattaa ci julli benn bis Abdullah ibn Umar ne dafay génn jàkka ji dajeeg yonente bi alayhi salatu wasalaam ci benn bunt mu ne ko xabban law tarakna hadha al bab linnisa ak maa neexoon bu ñu bàyyi woon bunt bi ak jigéen ñi ñoom kase ñu fiy duggee ñoom kase ñu fiy génnee adab min ar rasul sallallahu alayhi wa sallam Abdullah ibn nee na Abdullah ibn Umar bis boobu la gëj a tànkam ci bunt boobu ñu tuddee ko babu nisa daan na def bu julliwaan toog lu yàgg du jóg saxaaba yi lu ñu wax nee nañ kunna nura annahu inama kaana yafaalu dalik xata taquuma nisa wa tansarifna aw wa yansarifna qabla rijal moom daan na def léeg-léeg bu musaana julli ba noppi sallallahu alayhi wa sallam wala naka jekk dafay toog lu yàgg fi muy julle du jóg ñi daan julleek moom nee na li ñu gis ne looloo tax mu ko daan def mooy daf daan bëgg toog ba jigéen ñi jóg ba dem góor ñi soog a jóg mais teggin yooyu fokk nit ñi dellu si wàcc ndax ñaari xeet lañ yoo xam ni ku ci nekk danga nga néew doole sa digganteeg sa moroom ku ci dal ci sa kaw moroom mën nga gaañu comme mën nga koo gaañ mën nga koo lor fitna bi ci ñaari côté yépp lay delluwaat léeg-léeg yow nga am doxalin yoo xam ni yaa ngi lor sa mbokku jullit ci sa ñàkk moytandiku ak sa ñàkk sàmm say doxalin léeg-léeg itam nga doxal doxalin boo xam ne yow yaa ngi lor sa bopp te yëguloo ko muy indi ay doyadi ba nit ki di dem ba dootul mën a contrôler ci ay jëfam di def yenn mbir yoo xamante ni dafa yàq lu bari ci jikkoom bunt boobu tim bunt bu bu jar a bàyyi xel la bunt bu jar a bàyyi xel la ci buntu xool fokk nit ki sàmm ay bëtam contrôler ab gisam mën koo sàmmal xolam sàmmal ko ay jikkoom bokk nañ ci li gën a mën a dimbaliwaat nit ki ba léegi mooy mu limiter ay génnam rawatina jigéen li ñu al xuruj ad li yàlla subhanahu wa ta'ala wax naan wala tabarraj na tabarruj al jahiliyatul ula tabarruj boobu ñu bari léegi ñu ngi koy tekkee wàllu sol tabarruj tekkiwul sol bi ñu juumee ci tekki tabarruj di ko tekkee sol boo solee lu rafet sax ñu ne mbokk bi dafa tabarruj foofu lañu defee njuumte ci ni ñu waroon a jariñoo ci aaya boobu ci njàngale yàlla subhanahu wa taala foofu tabarruj mu ngi tekki génn bu bari di jaxasoo ak jigéen ñi ñàkk moytundiku jigéen ñi tabarruj kenn du ko tekkee sol ñu bëri sol lañ koy tekkee tabarruj mooy jigéenu ceddo yi bu njëkkoon laata lislaam li ñu daan def ci di génn di jaxasoo ak jigéen góor ñi di génn lu bëri seen kër di jaxasoo ak góor ñi loolu mooy tabarruj bi ñu juumee nag tekkee ko wàllu sol léegi ndaw si day jàpp ne bu soloo sol bu jot rek lu ko fu ko ne saa bu ko neexatee génn heure bu ko neexee génn saa bu ko neexee génn daanaka kër gi sax du fi toog ba pare bu génnee tamit ci génn boobu du moytandiku ni muy doxalee ni muy comporté woo ci war moytu jigéen ñi góor ñi yonente bi alayhi salatu bi mu génnee benn bis taxaw ci buntu jàkk ji seen jigéen ñi di dox ci diggu yoon wi di xuus ci biir góor ñi di dem lan la wax daf ne taaxarna laysa lakunna an taxfidna tariq daf ne jigéen ñi dellu leen ginnaaw waroo leen a uuf yoon wi waroo leen ëmb yoon wi nekk ci diggu yoon wi saxaaba yi teewee woon loolu lu ñu wax dañ ne ginnaaw loolu gis nañ jigéen ñi di moytandiku diggu yoon bi ba kenn ci ñoom da daan tafu ba ay yéreem dafay lonk ci miir yi ndax moytandiku di jaar ci diggu yoon wi jubluwaayam nekkul woon loolu mais lim leen wax mooy ñu bañ a xuus di jaar ci diggu yoon wi di mbëkkante ak góor ñi di dóoranteeg ñoom ay mbagg wala ay yére mooy ndaw si kon ndakate même bu soloo ba génn dafa war di moytandiku ci comportement ci ni muy doxee ak fi muy jaar ak fi muy dugg ak fu mu dul dugg loolu yépp ay njàngal nit ki da ko war di bàyyi xel bu baax ak jataay ya muy dem ak famille teew loolu tamit na ci soxna yi gën a bàyyi xel bu baax ak ci yenn doxalin yoo xam ne ci jamono yu mujj yi siiw na siiwaay boo xam ni wallahi du dun du tegtale diine bu baax ci ñoom du tegtal itam bëgg diine ndax ñu leen gënoon bëgg diine jàll nañ fi te loolu siiwul woon tasul woon ci ñoom te bu tasee képp kuy seetlu di settantal bu baax bu ko gisee sa xel du ci dal muy faral di bëgg ay tëgg ak ay way ci ay xew ci di ko layalee sunna yonent bi alayhi salatu wasalaam sunna sunna la loolu c'est très dangereux bunt bu doy waar la imam Shafi'i bi mu demee Baghdad ba jóge fa daf ne bàyyi naa fa mbir bu dangereux boo xam ni kàccoor yi dugg ci l'islam pour yàq ko ñoo ko fa tasaare ñu ne ko lan la mu ne mooy di way ay shi'r muy ay way yoo xam ne wayi arab la di ko booleeg di tëgg benn mbir moo xam dañ koy jël di ko tëgg ci sa tànk muy ànd ak moom di neex mu ne bàyyi naa ko Baghdad mu ne ci li gën a mën a yàq l'islam loolu ci la bokk ndax ay tëgg ak ay way dafa gaaw mën a def doyadi ci xol rawatina ci koo xam ni xolam dafa doyadi woon àllub neen fuñ ne xew jot na rek nga dajaloo teg di tëgg tëgg moo xam ne kenn santuloo ko l'islam lu mu digle dafa am jubluwaay bu mu ci am bis bu ca jubluwaay boobu jógee loolu daganatul li dangereux mooy di lonk ci ay texte rek pour di prétexte woo zahiru texte yooyu lañ ca mën a déggee te doo xool jubluwaay ya nekk ca gannaaw ak conséquences ya nekk ca gannaaw façon déggin boobu ci l'islam c'est très dangereux te ñu bari ci ñun léegi noonu la ñuy interpréter texte yàlla yi ak texte yonente bi alayhi salatu wasalaam mooy balaa ngaa interpréter ay tex fokk nga xam lan mooy jubluwaayu l'islam ci mbir mii xam lu ciy jubluwaayam balaa ngay interpréter texte bi noo xam ni dafay waroo ak jubluwaay boobu l'islam bëggoon parce que da ngay interpréter texte bi digal nit muy def loo xam ni la jublu la l'islam jublu ca moom lam digle moom contraire ba la koy amal la koy jural bu boobaa defatul yàlla santaane woon bi yonent bi di digle ñu tëgg duf pour yëgle ko la nit ñi xam ne diw takk na diw benn bi muy digle pour wala bokk bi muy wax pour ñu wayal kenn way boo xamante ni du way yu jéggi dayoo dañ koo limité tënku ko ci benn anam parce que nit ki bu jógee këram dem beneen kër wéet fa xol bi surtout jigéen dafa néew doole xol bi dafay wéet dafay am naqar pour loolu nekk lu koy dalal di ko consoler pour mu mën a dal dafa du defal sax koo xamante ni dafa jóge ci sëyir dem sëyi ji rek waaye xataa ay jigéen yu ñu xarafal defal loolu nañ leen ko yonentu bi alayhi salatu wasallam digal yenn ci ay jànq ñoo ko daan def yoo xam ne ay mbindaan lañu leen di tuddee wala ay jaam yu daan nekk ci Aïcha wala yu daan nekk noonu ci biir ansaar ñoo daan faral di def loolu loolu du seen sax mbir moo xam ne dañ cee xam mën ko di ko def li koy gën a firndeel Aïcha radiyallahu anha benn bis mës na am ñaari jànq yu jigéen yu ñu xarafaloon ci këram ñu ñu ko dénkoon ñu ne ko ndax duñ leen indil ku leen di woyal ndax bi l'islam digle na bu xaraf amee ñu indil kenn mu leen di woyal pour ñu fàtte metit bi woy yoo xamante ni day woy rek ñu koy tuddee xina du ànd ak tëgg ci bërëb boobu bi ñu indee benn way waa ji di woy mën a way lool nekk fa di yëngal bopp bi di woy way yu neex Aïcha bi mu génnee gis ko def ne kii seytaane la génne leen ko li tax parce que kooku way mooy métier dafa aay ci woy dafa mën a woy te loolu nekkuloon jubluwaayu l'islam dañ bëggoon rek ku noonu ay way ñu fàtte ci seen métit mais waxuñu nga dem jëli ji spécialiste boo xamante ni ab musicien la muy ñëw di way naka noonu tamit bu fekkee dañuy dem ci suñu xew-xew yi ba léegi ci tànk yu mel noonu lañ tàmbalee jëm am benn genre orchestre boo xam ne lu xewati ñu ñëw installé wu di tëgg tëgg mu jéggi dayoo moo xam ni day indi sax subaha ci ñi xamul diine ci bu ñu gisee ñiy dund diine ñuy dox taxawaay yu mel noonu subaha boo xamante ni mënuloo koo mënuloo koo leeral amul lenn loo ko mën a expliquer war nga defaat ndànk bu baax nga xoolaat delloowaat sa xel sa bopp ndax lii diina la wala diina lalu ndax lii banneex banneexu bakkan moo ko lal wala ndax xër ci sunna yonente bi alayhi salatu wasalaam moo ko lal nañ gën a bàyyi xel ci mbir yooyu bu baax a baax bañ seytaane di ñu xëcc di ñu nax ndànk-ndànk ci jaare la ci li ngay dund ngir sànq la yàq say jikko ngir yàq say jikko sànq la loolu nañ ci bàyyiwaat xel bu baax a baax beneen bi ci des mooy ci buntu teggin yooyu nit ki teggin yi nga xamante ni war na koo tegginoo ci digganteem ak ay moroomam mu nekkat bunt bu am a am solo yonent bi alayhi salaatu salaam yaroon saxaaba yi ñu demoon ba àgg ci foo xamante ni histoire du ko mës a fàtte jàngal ci jullit ñi loo xamante ni bu fekkente ni jullit bi loolu ko ci lislaam jàngal yar bi ko ci lislaam yar nekk na ci moom nekk nit koo xamante ni képp ku nekk ak moom njariñ ngay jële ci moom waaye doo jële ci moom lor njariñ ngay jële ci moom waaye doo jële ci moom lor teggin yooyu bu fekkee nit ki tegginoo na ko nekk na ci moom ki ci gën a yey mu war ko ci jiital mooy ay ñaari waajuram ñaari waajur donte da nga uute ak ñoom ci pas-pas waxuma la pas-pas waaye donte da uute ak ñoom ci diine say waajur lañ say kilifa lañ danga nga war a rafetal jëmale ci ñoom beneen bunt bu dangereux boo xam ne ñu bari seytaane da leen ci euh, nax ndax da ngay ñëw di dund loo xam ne xëy na sa waajur rafetlu ko la àndu ci lu ci ëpp ñàkk xamam moo koy waral nga yaakaar ne comme yow da ngaa nekk ci dara jàpp nga ne mooy dëgg moom lim nekk xëy na njuumte la loolu daal di waral cër bi la lislaam waraloon sa kaw sa diggante ak sa waajur nga daal di koy neenal cëru waajur bi mu am ci yow nga xam ni lenn ci ay jaami yàlla sax balaa nga koy def da nga cee war a sàkku ndigalam yonent bi alayhi salatu wasalaam bi ko nit dikkalee di ko tàggu jihaad mu ne ko xayyun ummuk ndax sa ndey mi ngi dund mu ne ko waaw mën ne ko irji falzam rijlaha fa inna al jannata tham dellul nga taqoo ak tànkam tànkam ak sa tànk foofu ngay amee aljanna beneen riwaaya waa ji jóge yaman ñëw di ko sàkk di ko tàggu pour dem jihad fi sabilillah mu ne ko say ñaari waajur ñu ngi dund mu ne ko waaw mën ne ko da ngaa bëgg aljanna mën ne ko waaw mën ne ko dellul ci ñoom ngay jëlee aljanna ci yeneen riwaayat dañ ne def ne ko ndax jox nañ la ndigal mu ne déedéet mu ne demal nga tàggu leen li ñuy seetlu ci riwaaye xadis bi mooy yonente bi alayhi salatu wasallam laaju ko ndax say waajur jullit lañ wala du jullit te dañ ne tarkul istifsal fi maqaami al ihtimal yunazalu manzilata al umumi fi al maqal la fekk mu ñàkk koo laaj ndax ay jullit lañ ak duñu ay jullit day wane ne kon seen nekk jullit ak seen ñàkk nekk jullit du changer ci mbir mi dara ñu nekk ko ak ñu ñàkk ko nekk war na leen topp war na rafetal ci ñoom fekk dëggaluñ ko loo xamante ne bii lu waroog li yàlla subhanahu wa santaane la lu koy tàbbal ci mooy yàlla la subhanahu wa taala li koy gën a firndeel mooy xadiisu Jurayr bi nekk ci saxi muslim àgg ci jaamu yàlla foo xam dem ba banu Israël yépp di coow mbiram bi mu nekkee ci bërëbu jaamukaay yàllam ba di jaamu yàlla ndeyam soxla ko ñëw taxaw ba séen ko di ko woo mu dégg ndeyam di ko woo mu ne yow sama boroom julli bi may julli ak sama ndey ñoom ñaar kan laa war a topp xolom jeng ci julli bi mu continuer di julli wuyuwul ndeyam kooku woo ko def ko ba mu ñetti yoon doomam wuyuwu ko te nekkoon jaamukatu yàlla bu màgg boo xam ni moom lañ doon joxe exemple ci jamonoom ci mën a jaamu yàlla yaayam ñaanal ko ne ya maa ngi lay ñaanal yàlla ne yàlla bu la yàlla fat mukk fekk fitnaalu la fekk fitnaalu la laata muy faatu lu ko dal gars yi ñoo nekk ca dëkk ba di waxtaane mbiram as ndaw soo xam ne taxawaalukat la dégg ko ne waa jooju de man dinaa ko fexeel dem ci moom ngir provoquer ko waa ji faalewu ko sax ndax jaamu ko te yàlla bu mag la woon boo xam ne loolu yitteelu ko woon mu dem gis ab sàmm caaxaan ak moom ba jële ci ab ëmb bi mu ci jëlee ëmb toog ba am doom yóbbu doom ji ci dëkk ba ne leen diw moom mooy bàyyi doom ji waa dëkk ba màbb dem fekk ji ko fa mu nekk biñ ñëwee laata ñuy wax ak moom dañoo màbbal jàkkaam ja ba mu mokk rumbux mu ne leen lii lan la ñu ne ko yow sa li ngay wane yépp ndakate saay-saay bu mag nga yaa jur doom ji waxul ak ñoom dara dafa wëlbatiku dem ci xale bi raay ko ne ko doom ji kuy sa baay doom ji ne leen sàmm bi mooy sama baay yonente bi alayhi salatu wasalaam mu ne bu ko yaayam ñaanaloon ñaan bu gën a rëy lool dina ko dal li ngay yéemu ci li ngay yéemu ci xissa bi mooy fi waa ji toll ci mbaax bay wax loo liir yaayam ñaanal ko mu dal ko foofu rek ngay jànge ne waajur du moroom ak lu nit ci mën a baax baax na wàcce boppam ci kanamu ay ñaari waajuram na def njëkk jëmale ko ci ñoom na xool ni muy waxee ak ñoom na leen jox cër déggal leen kàddu gi yàlla jox waajur ci moom mu jox leen ko bu ñu taxawee sa diggante nag ak lii diine sa diggante ak sa borom nga fexe fekk loolu sa kémte ay kàttan ci anam boo xamante ne anam bu rafet lay doon du doon anam boo xam ne anam bu violent lay doon wala ngay mel ne kuy jaamaarloo ak ñoom mel ne ku jàkkaarloo ak say noonu loolu lu ama am solo la ci wàllu jikko yu rafet ak yar nit ki ki gën a am solo ku mu koy wan ci ku mu koy jëmale mooy ay ñaari waajuram mais boo génnee nekk ci mbedd mi nekk ab sàmba àllaar nekk nit ku baax nit ku oyof am ay jikko fu ñu la seen yaa ngi reetaan boo nekk ak say moroom noonu mais boo demee say ñaari waajur mënuñ laa def loo dara nga nga def mënuñ laa tere dara nga bàyyi doo diisoog ñoom ci say mbir fi nga leen war a teg tegoo leen fa nit dafa war di taxawu ay ñaari waajuram di leen sàmm di euh, def seen digal bokkaat na ci li koy gën a jëmmal tamit xadiisu ñett ñi duggoon ci alxaar ñett ñi bokk ci bani Israël ñi nga xam ni dañoo duggoon ci xuntuma jamono boo xam ne jamono yi nee nañ ak guddi la ñu dox boom guddi ñu ne nañ fa dugg ngir buñ fanaanee bu ëllëgee ñu génn dem mu ngelaw ngelaw lu foor am benn doj wu rëy wu jóge ca kaw daldi daanu ci bunt bi tëj ko ñu xool gis ne amul lenn leen fa mën a génn lu dul ñu ñaan yàlla subhanahu mu génn leen fa ci ay jëf yu baax yoo xam ne defoon nañ ko ñu ko tuddee ak tawassul bil a'mal as-saliha bokk na ci kenn ci ñoom li mu defee tawassul mooy jëf yu baax yoo xam ne defoon na ko ci digganteem ak ay ñaari waajuram ci gënale bu mu leen gënale woon ci njabootam gënale bu mu gënale woon ay waajuram ci njabootam ci ne balaa ñoo moo lekkati mook njabootam ay waajuram dañoo lekk ba suur benn bis mu dem uti ji lu ñu lekk nee nañ dafa demoon ratti ji meew mu guddee fa bi mu ñëwee fekk ay waajuram tëdd nañ ba nelaw fekk na ay doomam yu ndaw ñu ngi toog di ko xaar ndax xiif lekkuñu di jooy mu ñëw gis ay doomam di jooy fekk ay waajuram nelaw nañ ay teggin yu bari ngay gis ci xissa bi yonente bi alayhi salatu wasallam nettali ko ñu war ci jële ay jàng yu bari bokk na ci teggin yi ngay gën a seetlu mooy yeewu leen ñàkk bi mu leen ñàkk yee loolu ci teggin yi la beneen bi ci des mooy gënal bi mu leen gënale ci njabootam loolu tam ñu bàyyi ci xel bu baax gënale bi mu leen gënale ci njabootam loolu tam ñu bàyyi ci xel bu baax a baax kon teggin yooyu ci diggante ak nit ki ak waajuram lu ama am solo la ci di leen taxawu di nemmeeku seen i bëgg-bëgg di ko di di ko def moo xam ci loo xam ne ci alalam la wala loo xam ne sax ci dox ko la léeg-léeg nit ki am alal di dimbali waajuram di jënd sax ration bi ci kër gi mais waajuram bu soxla woon dara ci boutique ba du na ko indi ma dem jëndal la day toog di ko xool soo moytul mooy sol dàllam ngeen dem jëndi ji ko wala mu toog faa toog a toog ba gis ku mën a yónni mu soog ko yónni mais moom du jug dem jëndal ko ko ndax jàpp na ni xëy na léegi mag la tuuti ak alal ji muy jël di ko joxe ci kër gi dafay xaw am benn diis bu muy diis ba yenn course du ko ko doxal wallahi xorom sax bu ko bëggee da naan ko indi ma dem jëndal la ko loolu ay mbir la yoo nit ki fokk mu ci bàyyi xel xam ne ak diisam akuk magam akuk kilifteefam du feeñ ci ñaar ñooñu Abu Bakar ki mu doon ci lislaam yépp bi muy dem ba fi mu àgg ci lislaam bi muy indi bàyyam pour mu tuub yonente bi alayhi salatu wasallam daf na ko waroon nga ma ko wax ñu dem fekk ji ko mais mu bañ a ñëw loolu mooy lan pour mu tuub rek mu ne ko waroon nga ko bàyyi ñu dem fekk ji ko pour mu bañ a ñëw ndax mag la kilifa la donte moom mi ngi jamono jooj ci kéefér yonente bi alayhi salatu wasallam ak ki gën ci jullit ñi di Abu Bakar ñu sol seen daal dem fekk ji ko parce que dafa am soxla ci ñoom ñoom ñoo ko war a fekki mais moom waru leen fekk si sallallahu alayhi wa sallam benn bi ci des mooy wàllu yar ci diggante nit ki ak ay mbokk jullitam ak ci digganteem ak nit ñi loolu géeju ndaayaan la goo xam ne amul fu mu yem am njariñ trop ñu soxla ko lool bu baax ci liñ doon wax sànq ci nekk ci dëgg di ko jëf di rafetal jëfin bi ba mën di jariñ nit ñi ci say wax mën leen a jariñ ci li ngay def mën leen a jariñ ci anam bi nga nekk mën leen a jariñ ci dëgg googu waaye doo leen ko yàqal doo tax dëgg googu ñu bañ ko loolu rafetuk doxalinuk nit ki ak rafetuk rafetuk nekkinam am na ci wàll bu rëy rëy ginnaaw yeneen li ci des bu mu nekkee ndimbalu yàlla subhanahu wa ta'ala nit ki bu fekkee nekk na ak nit ñi li nga xam ne mooy principe bi muy war a njëkk a jiital mooy bëggal leen li nga xam ne bëggal na ko boppam loolu li muy tekki mooy bul def kenn loo xam ne bëgguloo ko la ko def ni ngay dikkee nit ñi loolu ngay séentu ñoom ñu dikkee la noonu principe boobu na jiitu ci wàllu yar ak wàllu jukkoo ci sa jëflante ak nit ñi bul wax nit loo xam ne bëgguloo mu wax la ko bul waxal nit loo xam ne bugguloo mu waxal la ko bul def nit wala nga jëflanteek moom noo xam ne bëgguloo mu jëflante ko ak yow loolu bu fekkoon nit ñëpp noonu la ñuy doxalee lu bari ci suñu société bi li ñuy dund dina nekk loo xamante ni lu mucc ayib la mooy di xool ne yow balance bi ngay jëflante ak nit ñi moom nga bëgg ñu jëflante ko ak yow au contraire sax nga leen di gënal la ci sa bopp moo xam ci sa alal la wala ci sa waxtu wala ci sa xam-xam nga ubbil leen sa bopp ñu am ci ñu ci yow sañ-sañ nga leen di taxaw di leen jàppale fa nga xam ne fa nga leen mën a taxaw yonente bi alayhi salaatu léeg-léeg ab xale bu ndaw wala boog ab jaam bu jigéen ci Madina daan na jàpp ci loxoom dem ak moom fu ko sopp daan jàpp ci loxoom dem ak moom fu ko sopp ba mu fajal ko aajoom mu soog koo bàyyi mu continuer yoonam sallallahu alayhi wa sallam am na ndaw soo xam ni xelam dafa matadi woon mu nekkoon Madina benn bis mës na koo fekk mu toog mu ne ko dama la soxla yonente bi alayhi salatu wasallam neewu ko toogal dafa jóg ànd ak moom ba kooku faj soxlam li mu soxla woon ci yonente bi alayhi salatu yépp mu fajal ko ko mu soog a dellusiwaat toog ci jotaay bi sallallahu alayhi wa kon loolu lu nit ki war a fexe def ci boppam la ndax bi ñu waxee ne xayru naas anfaahum linnaas ki gën ci nit ñi mooy ki ëppal njariñ nit ñi nit ki war na fexe ba nekk nit koo xam ne nekkam bi mu nekk ci nit ñi daf leen di jariñ waaye dafay téye lorom ci ñoom ndox bi yonent bi alayhi salaam di yox naan laa yuminu ahadukum aw laa yuminu man laa yamanu jaaruhu bawaaiqahu loolu mooy loolu mooy ne bi mu waxee ne xayru naas anfaahum linnaas fii mu ñëwaat ne man a aw man laa yamanu jaaruhu bawaaiquhu mooy boo seetloo ñaari taraf la benn taraf bi benn côté bi mooy njariñ li ngay amal nit ñi ci di leen ko jariñ beneen bi mooy sa lor bi nga xamante ni di nga ko téye ci ñoom di leen amal njariñ ci say doxalin ci say jikko ci say wax beneen bi ci des mooy téye sa lor lor moom bu ñu ko waxee loru yaatu la lor bi ci gën a dangereux mooy loru làmmiñ loru làmmiñ mooy presque bi ci gën a dangereux li koy firndeel yonent bi alayhi salaatu wasalaam lan la wax daf ne riba juróom-ñaar fukk ak nangami buntu la riba juróom-ñaar fukki ak nangami bunt la mu ne bunt bi ci gën a néew bàkkaaram lu muy tollool bunt bi ci gën a oyof bàkkaaram lu muy tollool mu ne bàkkaaram mi ngi tollook nit tëdde waajuram bi ko jur mu ne loolu lay tollool mu ne te riba bi gën a tar ci riba yi mooy nit di yëkkatiku ci deru mbokkam nit di yëkkatiku ci deru mbokkam mooy ngay teg ci sa kaw deru mbokku jullit loo xam ne yow da nga ci yëkkati sa bopp ngay teg ci sa deru mbokku jullit loo xam ne yow ci yëkkati sa bopp mu ne wa arba riba istitaalatu rajul ala irdi axihi al nit ki di yëkkatiku ci deru mbokkam deru jullit dafa nekk lu yàlla subhanahu ormal rawatina deru boroom xam-xam rawatina deru boroom xam-xam benn boroom xam dafa naan luxumul ulama masmuuma benn boroom xam dafa doon wax naan yaram yi boroom xam-xam yi dafa nekk lu ñu posone képp ku ko lekk poson mu ngi ci sa biir bis dina mës ñëw mu def jëfam bis dina mës ñëw mu def effet bi mu war a def képp ku lekk deru wala nga lekk yàpp yaramu boroom xam-xam xamal ni poson mi ngi ci sa biir loolu dañuy yóbbuwaat ci wax ci ne nit ñépp bu fekkee dañuy jëflanteeg ñoom ci yar ak ci teggin ñi gën a yeey ñu jëflanteeg ñoom ci yar ak ci teggin mooy boroom xam-xam yi ci warumaal leen jox leen cër bi leen yàlla subhanahu a ta'ala jox xam ne nit ki boo ko fonkee ngir xam-xamam du moom jëmmi nit ki ci boppam moo la yitteel bu la seytaane dikkal mukk naan la kii dafay yëkkatiku ci nit ñi kii dafa yaakaar ni dafa gën nit ñi kii yaa ko mag kii xanaa tey la jàng bu la seytaane dikk foofu mukk xoolal xam-xam bi ko yàlla baaxee xoolal alquran ak sunna ji nekk ci dënnam nga fonk ko ngir loolu wormaal ko ngir xam-xam boobu mu yor même boo gisoon sax ci doxalinam loo xamante ni gënul ci yow ndax amul nit ku mat mais na ko fonk ngir xam-xam boobu ndax loolu yàlla moo la ko sant yàlla subhanahu wa ta'ala moo yëkkati borom xam-xam yi ci dul borom xam-xam beneen bi ci des mooy fonk borom xam-xam mi ngi gën a feeñ ci du ñëw bu sumee dàllam nga jëlal ko ko bu tëbee nga bu ñëwee nga tëb jox ko ñaari loxo loolu rek du fonk fonk borom xam-xam mooy mi ngi gën a feeñ ci di jariñu ci xam-xamam bi mu yor ci di ko jàng di ko jëfe mais nag lépp tegu ci worma lépp tegu ci kersa ak ci respe ak itam ci di ko ñaanal ak bañ di mel ne ku koy défier ak di mel na kuy tolloole sa bopp ak moom ci di jéem a jël ay wax di ko ko jëmale ak di wax ay wax yoo xam da danga koy wax pour suufeel ko yëkkati sa bopp wala di par parloo ci seen diggante loolu nekkul loo xamante ne dafay jariñ ki nga xam ne moom mooy sàkku xam-xam am na benn borom xam-xam dafa daan wax naan Abdullah ibn Abbas géej la woon ci xam-xam mais am na ñu nekkoon ci wetam daan sànku xam-xam lu bari ci xam-xam ibn Abbas daf leen rëcc ñi gën a fës ci ñi doon jàng ci moom ku mel ne Mujahid nga xam ni xam-xamu Ibn Abbas li cëpp ëpp dañ koo taataan jariñu ko dañ am na ñu fa nekkoon ñoo xam ne jariñu ci xam-xamam ndax dañ daan def saa bu waxee dara ñu ne ci di dàggsante ak moom ba lu bari ci xam-xamam rëcc leen daawuñu jàng ci moom jàngu jariñu di déglu mais dañ fa daan nekk di dàggsante ak moom ci koo xam ne fóore la ci xam-xam ngeen ne ci loolu ne ci lool ba mu faatu jóge fi ku ne commencé nag di wax naan ay waay diw jóge na fi jóge na fi ñu bari ci tey ñi fiy nekk di jëngatu ci xam-xam yàlla baaxee la ñu am benn ubbeeku yu ci xam-xam dañuy faatu ñu ne fi di wër di imprimer seen i wax di commencer di leen joxaat yi te fekk jóge nañu fi dem nañ yóbbaale nañ xam-xam bu bari boo xam ne waroon nañ ko mën a jël jëriñoo ko jëfe ko ci seen dund mais malheureusement duñ ko exploiter dañ leen di bàyyi noonu di leen seetaan rek fekk géej nañ ci xam-xam loolu c'est très dangereux moo tax kon respect boobu ci borom xam yi tamit na gën a feeñee foofu na gën a feeñee ci du rekk jege leen xam leen am seen numéro lay léeg nga woo leen fexe xamanteek ñoom wala loolu lu baax la di leen nemmeeku mais fexe tamit di jàng xam-xam boobu di ko jëfee di ko jëmmal loolu mooy mën naa wax respect bi gën a rëy boo xam nit ki dina ko def ci diggante am borom xam-xam bañ di nekk di toxal ay wax ci seen diggante loolu baaxul diw laaj naa ko li mu wax ma lii diw laaj naa ko li mu wax ma lii wala nga laaj diw di ko mel ne ku koy tromper wala ku koy lëre ci ni nga koy poser question bi bu la tontoo nga faj ci sa soxla wala di ko laaj ay question pour dagg sante ko loolu tamit nekkul yar wala di mel ne kuy féewale diggante ñaari boromi xam-xam ki samp kii ki samp ki ñuy wax loolu tamit nekkul lu jaadu nekkul lu dagan beneen bi ci des tamit mooy déggal leen bu ñu waxee ci loo xamante ni yàlla leeru xam-xam bi mu leen jox ndax xam-xam ak lu dul xam-xam wallahi alazim yamul xam-xam dafay togg nit ba mu ñor am dégg-dégg ci lislaam boo xam ni mën na la borom xam-xam mën na la wax dara du la wax yàlla nee na yonent bi nee na fekk am na gis-gis bu xóot bu mu ko gis bu mu ko gisal ak bu mu ko déggee boo xamante ni yow mën nga dem jël say texte dajale ba toog yaakaar ni yaa ci nekk fekk ne li ngay wax lépp njuumte la moo tax boo amul xam-xam bul sori boo nekkul borom xam-xam demal nga def taqlid li la yàlla sant mooy fasalu ahla dhikri in kuntum la taalamuun comme nekkoo aalim bagage u xam-xamu l'islam nekkul ci yow ragalal yàlla nga yem fi la l'islam loo mais malheureusement léegi dëgër fit yi ngay gis ci façon tegtaluwin yi ngay dégg ak déggi ni ñu ci am yoo xam ni yu tumuranke la ci l'islam yoo xam ne da ngay jàng téere l'islam yi gën a màgg ci xam-xam ci wàllu fiq doo ko mës gis mësoo gis sax ñu ne lii boroom xam-xam sàngam wax na ko nga gis nit ku ci attana daaneel asamaan ne la wax jooju lu wér la di ko tasaare ci façon boo xamante ni yow da ngay yéemu ci yàlla léeg-léeg dëgër googu lu doy waar te léeg-léeg lu koy gën a jur ci nit ki mooy yër tuuti xam tuuti yaakaar ne xam nga lu bari ñi ma ci gën a moytandiku mooy sama mbokku jigéen ñi gaaw nañu topp ci ginnaaw nit ci façon boo xam ne façon bu doy waar la ala kulli xaal jigéen ñiñ leen war a booleel pour ñu leen di yar di leen ubbee ci seen mbir mooy borom xam-xam yi gën a xóot xam-xam ci ñun gën a jëm mag ci ñun suñuy jigéen bu ñu bëggee ñu leen yar di leen orienté ci masail moo xam ci masailu tahaara masailu tahaara imam ahmad nee na xayd rek xayd huit ans la ko jàng huit ans masail yi gën a compliqué ci diine la bokk ñu bëri su ñun dañ yaakaar ne ay mbir loo xam ne ñu la amuñ sax jotu nekk fii di ko jàng ay xeydu wan nifaas yaa xi loo xamante ni mooy diine yàlla subhanahu wa masa masail yooyu ak li aju ci wàllu jigéen ak ci mbiru sëy surtout mbiru sëy dañu war a am marja muy delluwaay boo xam ne ñoom rek ñoo ci ubbee seet ay boroom xam-xam yoo xam ay mag lañ ci wàllu âge am nañ genn âge bi ci mag am nañ expérience ci dundu am benn xóot bi ci xam-xam ñu bàyyee leen ko ñu ciy wax te sama classe gi ak ndaw ñi ñu noppi ci rawatina ñi nga xam ne nañ ragal yàlla jànguñu amuñu xam-xam waruñ sax di laajte waateel laajalaate sax nañ ko bàyyi parce que bu ci intermédiaire duggee rek problème bi foofu lay tàmbalee benn mbokk dafa am problème ma ne woon naa ko laajal bu la laajalee borom xam-xam bi li muy wax lépp mënu koo jàpp mënu koo maîtriser comme ni mu koy waxee ba pare léeg-léeg bu paree buy toxal day toxal selon compréhension selon compréhension am léeg-léeg sax ak yu ko ci neexaale tamit ak yu ko ci neexaalewul mu dugalaale ko ci biir jottali bi muy jottali tontu borom xam-xam bi muy indi problème yu bari moo tax ci wàllu yar nañ ci gën a góorgóorluwaat gën ci moytu jigéen ñi am na ñoo xam ne fekk ñu ngi leen di bàyyi ñuy dem ci ñoom di jële ci ñoom xam-xam wala ñuy am ci ñoom benn influence bi du ñu mën a am yar mukk parce que yar jigéen dafa nekk lu jafe loo xam dafa am lu bari lu mu laaj dafa am ñoo xamante ni bi ñoom lañ ko war a bàyyeel ñu taxaw ci loolu ñu leen di lëkkale ak ñoom bu ñu amee problème ñu woo leen exposé leen ko bu yenn problème yu garaaw yi amee ci diggante ay sëy ak yooyu ñu dem ci ñoom wala ñu dem woowu ji leen ñu ñëw toog lijjanti ko mais bu dee yu yooyu bu amee ku ne jóg wax ci chaque jour ci ay problème la ñuy dugg la ñuy dëkk pare tamit wàllu formation beeg yooyu da ngay gis léeg-léeg jikko yu bari yu yàqu ci sababu ñenn ñi nga xam ne ñoo fay nekk naan dañuy orienté ak dañuy formé léeg-léeg ñoom ñooy doon sabab bi wàllu yar nekkul lu yomb ala kulli xaal beneen bi ci des mooy ndaw ñi nga xamante ni dañ nekk ñun suñu biir di góorgóor di dund diine di jàppalante soxla nañ yar bu baax a baax lii imaam Sufyaan ath-Thawri doon wax rek loolu lay waxaat mooy li ñu soxla ci yar jamono ji sax soxlawuñu toll noonu ci xam-xam li ñu soxla ci yar soxlawuñu toll noonu ci xam-xam soxlawaat nañ yar bu baax a baax ndax jamono ju ñu toll nii gis-gis bu leer ci wàllu doxin ci sunna ci dundu alquran ak sunna ñàkkatul ci milieu bi ñi ci gën a néew xam-xam boo waxtaaneek ñoom ñu wax la lu leer lu la mën a ci war a delluwaat ci alquran ak sunna jëfe ko bu fekkee gis-gis bi leeree na noonu lu tax kon jëf yi méngoowul ak gis-gis boobu ñàkk am yar mooy problème bi yar bi fi nekkul tarbiya bi fi nekkul mooy problème bi loolu Cheikh Nasruddin Albani rahimahullah daf koo joytu joytu ko joytu ba ni mu fi jógee daf daan wax naan ñun ñu ngi toll ci jamono saxwa jamono joo xamante ni nit ñi dañoo yeewu am réveil islamique ñuy def lu ñu tuddee tasfiya muy seggat xam-xamu monde islamique bi delloowaat nit ñi ci alquran ak sunna delloowaat nit ñi ci lu mag ñu baax ñu doon dund waaye problème bi mooy yar moo amul ñàkk am yar boobu nag lu bari la indi ci ay yàqute ak ay torof torof yoo xam ne yenn yi ñu ngi koy gis yi ci des ci kanam lay ñëw bokk na ci firnde yi gën a feeñ ay ndaw yoo xam ne dañuy jóg nee nañ topp ay masaayix yoo xam ne nee nañ ay boroomi xam-xam ku ñoom amuloo xam-xam ku soxla dara ci lislaam ñoom nga waroo ñu wax la ko nit ki jàng xam-xam xam it au contraire sax ñooñu la ñuy jéem a fexe décrédibiliser leen pour kenn dootu leen déglu ci à tout prix nu ñu ko mënee di delloo nañu ñi ci ay delluwaay yoo xam ñoom seen bopp xamuñu ko ay toppandoo la ak ay jokkalante ak wax ju bon joo xam ne foo ko takk weesu na ko ak ñaawuk jikko ak yëg sa bopp ak yaradiku goo xam ne foo ko takk weesu na ko lépp nga koy askanale manhaju salaf ku wax nga dal ci kawam di topp nit ki di dajale ay ayibam di dajale ay njuumteem di tooñ ay nit di wax ci ñoom loo xam ne du dëgg di tricher di jaxase ay masala yoo xam ne bokkul di wax ci diine te amaloo ko xam-xam ne borom xam-xam yi xam lislaam nañu noppi xamuñu ñeneen ñoo xam ba pare yow mi xamul ngay wëlbatiku di wax mu nekk ay mbir yoo xam ne doxalin yooyu bi mu amee tas xew waroon nañ xam lan mooy sabab yi tax loolu mën a am ak mën a gaaw a tas ci suñuy ndaw bokk na wallahi alazim ci lu ko gën a favoriser ñàkk am yar bu nekkoon ci ñoom ñàkk am yar moo tax yu mel noonu mën a ñëw tàbbi yóbbu ndaw ñu bari ñu dem fekk ji ko mu gaaw a tas ci ñoom ñàkk am yar bu fekkoon tarbiya bu wér tarbiya islamiya boo xam ne def nañ ko ci ñoom nekkoon na ci lu bari ci loolu duñ ko def mais malheureusement dañuy dajale mais duñu yar loolu moo gën a nekk suñu yitte mooy ak taktiil mais amul tarbiya amul takk takwin dañuy dajale pour mbooloo mi di gën di bëri jigéen ñi di gën di jigi di xijaab góor ñi di gën di iltizam mais tarbiya bi ci war a topp ni mu war a amee ci niñ ko war a yittewoo amatul ñaareel bi ci des mooy lu bëri ci suñuy wax nekkatul ay waxi yar ak waxu former nit ki defar bakkanam ci diine dañuy wax pour cultiver nit ki pour mu am culture général ñaar yooyu bokkul da ngay nekk plus de vingt ans di wax nit ñi di la déglu bis boo leen sondee ci seen diine dara duñ ko xam masaayil yi gën a terre à ko comprendre parce que da ngay wax pour jox leen culture générale waxuloo pour former leen yaroo leen pour former leen pour mu am benn cëslaay bu nekk ci ñoom loolu lu bari ci suñ formateur dañ ciy def ay erreur ak léeg-léeg sax doxalin yoo xam ni au contraire man la ma gis doy di lay def ci nit ñi léeg-léeg yenn formateurs yi ñu tuddee ay formateurs seen yenn doxalin ci nit ñi attaqué sunna ak ni ñuy attaquer yenn pratiques yi ak ni ñuy attaquer yenn yar yi di ko ñàkkal fayda ci bëtu nit ñi ak di ko exposer di ko wax ci façon boo xam ne mel ne kokkali lay nurool loolu encouragé wul yar loolu nekkul luy dimbali yar nit boo bëggee def ci moom yar da nga war a def ci moom yar ci mu respecter l'islam respecter lépp lu jëm ci diine ak lu ko ku koy jëfe même bu uute woon ak moom ci déggin ak ci gis-gis mu am ci moom respect ndax adab bokk na ci fi mu war a gën a feeñ mooy boo uuteeg nit ki ci masala boo xam ni ci alquran ak sunna la tegu nga uuteeg moom ci déggin da nga war a am ci moom yar xam ni ijtihaadam moo ko yóbbu ci lii mais du xëy na topp bànnee xam wala bëgg lu lu baaxul da gis ñenn ñi dañuy uuteeg yow ci bàyyi sa sikkim uuteeg yow ci nga yëkkati sa yére ñu xam ni li ngay def xëyuloo benn jour rek di ko def da nga koo sukkandikoo ci sunna yonente bi alayhi salaatu wasalaam ñoom ñu uuteeg yow déggin ak gis-gis ci war koo jëfe buñ yemoon ci jàpp ne jàpp nañ ne warul ñoom ñu koy def yow nga ijtihaat ne war na parce que ay texte nga sukkandiku ñu respecté la di ngay def kon loolu kenn du ci wax dara mais di kokkali ak di ko doyedal ak di ko ñàkkal solo ak di ko wax ci façon boo xam ni loolu nekkul yar ci lislaam kon kay wax moom ci boppam yarul boppam bay mën a yare ñu mel noonu nag bu ñu tasee di wax léeg-léeg ndaw ñu bari topp leen di leen déglu ñu dem ba teg leen ay ustaas yu mag formation du mën a am lii am mooy cultiver culture générale nit ñoo xam ne fu ñu toog discuter masala boo indi ñu wax ba wër la mais euh, formation amul du lool du formation formation du nga am culture générale rek te ñu mel noonu la plupart ñu mën a discuter la ñuy faral di doon ndax pratique bi dina demee noonu allahu alam mais lu ma lu lu ma bëgg a wax mooy ci léeg-léeg ni ñuy déggee suñu diine yar bi léeg-léeg foofu lay amee problème maa ngi dénkaat sam bopp di dénk ndaw ñi nga xamante ni ñépp ay ndaw lañ di ñaan yàlla subhanahu wa mu saxal ñu ci lislaam ne soxla nañ yar bu baax a baax ci delluwaat ci ñi nga xamante ni ci ñoom lañ koy séentu ci ay boroomi xam-xam ay mag yàlla teg teg leen ci suñu kanam ñu amaat ci ñoom worma amaat ci ñoom yar ci respecté leen saraxatan am daal benn doxalin ci lislaam boo xamante ni dinañu gën a dimbali pour ñu gën a sàmm suñu diine sinon dañuy yàqal dañuy yàqal suñu bopp wala dañuy yàqalante dañuy yàqalante mooy kenn su ñenn ci ñun dañuy doxal doxalin boo xam ne dafa yàqal ñépp te du ñu ngi dund ci société boo xam ni nit ñi ñu ngi ñuy xool di am fu bari fu ñuy séentu di am lu bari lu ñuy xaar ci ñun kenn ku nekk ci dafa war a wax ne loolu bis buy am du jaaree ci man bu ko ku nekk fexee rek ci ay doxalinam ak ci ay waxam ak ci jëfam yàlla mën nañu defal sutura mais li dangereux mooy am ñàkk am yëg-yëg lu la neex def lu la neex comporté woo lu la neex wax doo contrôler say doxalin du con doo contrôler say say say jikko loolu moom moo li doy waar mooy li nga xamante ni da ngay dem ba benn jamono nga def loo xam ni dina mën a jur lu bari ci ay yàqu-yàqu yoo xamante ni bu yàqute ba ñëwee ñépp lay lay boole ñépp lay ëmbaale pour joxe benn exemple rek balaa ñuy jeexal ci lu mel noonu lu mel ne masalan problème mu weer bi bi ñu fiy coow ci wàllu gis nañ ko gisuñu ko dañuy julli duñu julli bu fekkoonte ni yar bi ñu lislaam yar ci wàllu ne nit ki lu mu war a lu muy wax ci lislaam da ko war a xam ak respecté boroom xam-xam yi dellu ci ñoom loolu warul woon mën a indi problème ci biir ñi nga xam ne ay multazimoon lañ bu fekkee sax dafay indi problème ci diggante ci façon bu gën a yaatu ci biir réew mi ndax ku ci nekk ci ñoom bu ci amoon taxawaay bi yàlla santaane ci walaw radduhu ila rasul wa ila ulil amri minhum la alimahu alladina yastanbituunahu minhum bu ñu defoon teggin bi yàlla subhanahu wa sant jullit ñi ci delloo ko ci yonent bi delloo ko ci ñi xam ñu xam lañ ca war a jële ci doxalin kon problème du am mais ñàkk am yëg-yëg mooy waral léeg-léeg yenn taxawaay yu bari di am yoo xamante ni après lu bari lay yàq kon nañ ñaan yàlla subhanahu wa taala ala kulli xaal mu sàmmuñu sàmmal ñu suñu diine xam ne dañ nekk ci jamono joo xamante ni jamono yi fitna la jamono ju doy waar la boo xamante ni li ñu wër ci ay fitna dañ koo miin ba gisatuñu ko mais ci ay fitna rek lañuy dund nit ki dafa war a am yëg-yëg ci loolu bu baax xam ko tax muy jéem a fexe di di mucc di muccal diineem di muccal ay jikkoom di jéem a ut ci loolu ay jumtuwaay ak ay doxalin yoo xamante ni moo ko ci jàppale bokk na ci muy jiital mooy di ñaan yàlla subhanahu wa mu sàmm ko sàmmal ko ay jikkoom li yonent bi daan wax naan allahumma ahdini li ahsani al axlaaq laa yahdini li ahsaniha illa ant allahuma zakki nafsi wa aatiha taqwaha anta xayru man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha di def ay ñaan ci loolu comme ni ko yonente bi alayhi salatu wasallam daan ñaanee beneen bi mooy muy delloo xelam ci boppam ci di nemmeeku ay jikkoom di ko jéem a jubbanti ak di fekk tamit jikko yu bon yi nga xam ne ñoo ñoo koy ñoo ñooy yàq jikkoom ci di tey làmmiñam di wax di di di noppi lu bari yenn ci saxaaba yi dañ doon wax naan gisuma lu gën a yell ci ñu tëj ko lu yàgg làmmiñ làmmiñ moom la nit ki war a gën a bari lu mu koy tëj pour muy bañ di wax lu bari Omar daan wax naan man kasura kalaamuhu kasura xata'uhu wa man kasura xata'uhu kasura zunubuhu wa man kasura zunubuhu kaana kaana naaru awlaa bihi Omar daan wax naan ku sa wax bari say njuumte dina bari ku sa njuumte bari ku say njuumte bari say bàq bari ku say bàkkaar bari safara moo gën a yell ci yow nit ki fexe itam tey tànkam di def li yonent bi alayhi salatu wasallam doon wax naan amsik alayka lisaanak bi ko saad laajee ne ko lan mooy mucc yow yonent yàlla bi ku bëgg a mucc nu muy def mu ne amsik alayka lisaanak na nga téye sa làmmiñ ci sa bopp téyel sa làmmiñ ci sa bopp wal yasaaka baytuk toogal ci sa kër na la sa kër doy ñu bari su ñun léegi duñu toog seen kër du jigéen ñi rek mais même xatta góor ñi génn bu bari bi ay problème rek lay indi génn bu bari bi ay problème rek lay indi day dem ba nit ki bu ko tàmmee daf koy indil sax ay problème ci biir njabootam nekk père de famille war a toog ci wetu njabootam yar leen war a toog ci wetu njabootam dalal leen am lu bari lu mën a taxawee ci seen wet mais doo ko tal ndax génn te lu bari li ngay def ci mbedd mi nekk lu la amal njariñ du ci sa diine du ci àdduna tàmm taxawaalu rawatina jamono joo xam jamonoy fitna la mbedd mi yépp ay fitna la ci looy dégg ak looy gis ak loo dul gis sax ci ay fitna ba pare foo toll yaa ngi ci mbedd mi yaa ngi ci biti mais fitna la lu bari sa diine dafay yàqu kon ngay toog boo amee soxla bu bu ñor nga dem doxi ko ñëwaat yonente bi alayhi salatu wasallam bu daan dox sax day gaawantu saxaaba yi neen dañ daan mel na kuy daw pour mën a dab topp ci ginnaawam ndax doxu fulla bi mu daan dox jëm ci fu mu jëm nga xam ne kii boo gisee muy dox da xam ne doxantuwul daa fu mu jëm jullit noonu la war a mel mais wër di xool ay programme ak tey fan la loolu problème la wabki ala xatiatik beneen bi ci des mooy nga jooy ci say bàkkaar dañuy wax naan al mu'min man wasi'athu dunubuhu an dunubi nnaas ki gëm yàlla dëgg mooy ki nga xam ne ay bàkkaaram da koy tiital ba du tala xool bàkkaari nit ñi mooy nga xool say bàkkaar nga gis say bàkkaar comme li Abdullah ibn Mas'ud doon wax naan ki gëm yàlla dafay mel ne moom ak ay bàkkaaram comme ku taxaw ci suufu montagne ragal montagne bi daanu ci kawam jullit bi gëm yàlla noonu lay mel ci digganteem ak ay bàkkaaram day jàpp ne moom ku bari ay bàkkaar la ku néew ay tuyaaba la dafay tiit ci boppam fu mu toll du waru mukk ci boppam loolu muy xeeb bakkanam boobu muy xeep bakkanam am na lu bari lu muy def ci moom ci gën a góorlu ak gën a yittewoo bakkanam mu ne waaye kàccoor bi dafay nekk koo xam ne ay bàkkaaram kenn xamul fu mu yem te mu ne bàkkaar yi dina tuuti ci bëtam tuutiwaay boo xam ni dafay mel ne ab weñ romb la nga dàq ko mu jàll ab weñ naaw romb la nga dàq ko mu jàll noonu weñ bi ñàkkee solo ci yow noonu la ay bàkkaaram di ñàkkee solo ci moom kooku mooy ki yàlla namul ci moom texe moo tax yonente bi alayhi salatu wasallam wax saad ne ko wabki ala xatiatik na nga jooy ci say bàkkaar moo tax mu doon wax naan man saatuhu xasan sayiatuhu wa sarathu xasanatuhu fa huwa mumin yonente bi alayhi salatu wasalam doon wax naan képp koo xam ne say jëf yu bon say say say say jikko yu bon lépp lu bon ci yow neexu la waaye lépp lu baax ci yow neex na la mu ne ku gëm yàlla nga nit koo xam ne boo defee lu baax boo amee jikko bu baax boo amee doxalin bu baax boo amee nekkin bu baax loolu nekk mbëgte ci sa xol nga kontaan ci ku gëm yàlla nga ku bëgg lu baax nga bu boo seetloo lu bon ci yow jikko boo xam ne baaxul mu metti la doxalin boo xam ne baaxul mu metti la jëf joo xam ne baaxul mu metti la yow am nga ngëm yàlla ndax ngëm yàlla googu moo mën a def ci yow yëg-yëg boobu mais bis bu yëg-yëg boobu deñee ci yow loolu mooy amatoo yàlla nañu yàlla sàmm sàmmal ñu suñu diine sàmmal ñu suñuy jikko loolu rek lañ mën a ñaan muy sàmm ndax jamono ju ñu nekk jamono la jox ne ku yàlla sàmmul nga sànku yàlla nañu yàlla sàmm wa axiru daawana an alhamdulillahi rabbil alamin ci wàllu diine mais ci leneen la koy reye mu ne nu muy doxalee ak loolu alhamdulilah wasalaatu wasalaamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa ala kulli xaal bi ñuy wax sànq ci wàllu topp ak rafetal ci say waajur ak ñoo xam ne say kilifa lañ dañu wax bi charte ne la taata li maxluq fi maasiyati alxaaliq mu bañ a nekk ne da leen di topp ci loo xam ne mooy yàlla ko bir la loolu moom kenn du ci topp kenn mais même bu fekkee nit ki dafay ngàntal ci loo xamante ni ak topp gu mu leen waroon topp la ndax da koy yóbbu ci mooy yàlla dafa war nekk ci anam boo xamante ni anam bu rafet la léegi li mu laaj mooy bu fekkee dafa am goro bu jigéen boo xam ne du jullit ñuy dund ci benn kër mu muy muy rey loo xamante ni lu xaram la ci lislaam bëgg ko ko toggloo ndax mun na koo togg li njëkk mooy bu ñu dëkkee war na fexe ba moom ak doomam jooju doomu soxna soosu muy sëyal ñu waxtaan ak seen yaay jooju ci seen diine ñoom liñ gëm am ay principe yoo xam ne dinañ ko ko xamal mu teel koo xam ci tàmbalik dëkk bi ñuy dëkk ci benn kër gi ndax buñ demee ba mu fay sëyi ji te kooku du jullit war nañ fexe itam ñu fexe nekk bi ñu fay nekk ñu mën a ñongal seen diine ba nekk bi ñuy nekk ak ñooñu nga xam ne du ñu ay jullit bañ a am lu mu leen di yàqal ci seen diine wala mu leen ci gàllankoor ndax bu fekkente ni dafay am gàllankoor yu bëri yoo xam daf koy jur ci seen dina ci fañi dëkk wala mu leen di tàbbal ci lu loo xam ne lu xaram la bu boobaa dañuy def hijra ndax hijra mooy loolu donte sax xëy na ci kër la waaye hijra la loolu mooy sensu hijra léegi moom amul sañ-sañ ci di togg loolu nga xam ne lu xaram la ndax loolu najas la sobe la loo xamante ni yàlla subhanahu wa ta'ala daf koo xaraamal bu ko lekkul même bu ko jëfandikoowul amul sañ-sañ ci togg ko moo tax borom xam bi ñuy wax ci xatta xamr boo xam ne te xal la la muy sàngara soo xamante ni dem na ba ñu soppi ko dindi ko mu dootul mandilaate mu nekkaat loo xamante ni boo ko naanee dootul la mandil loolu dootul nekk sàngara nit ki mën na koo jëfandikoo mais dañu wax ne jullit amul sañ-sañ jël sàngara naan moom da koy defar de sorte que dootul nekk luy mandilaate waaye moom dina ko mën a jëfandikoo ci lu mel ne vinaigre wala ci lu muy toggee ndax comme lu xaram la amul sañ-sañ nekk ci di ko jëfandikoo naka noonu yi tamit jàpp boobu lu xaram la loo xam yàlla daf koo xaramal ci moom moom amul sañ-sañ ci di ko togg di ko lekk di ko jëfandikoo waaye itam du ko toggal keneen di ko ko jox mu koy jëfandikoo loolu lu leer waaye li ci des mooy naka lay ngantalee soxna soosu dañuy wax ne na xool ci anam boo xamante ne anam bu rafet la mu toog waxtaan ci ak moom xamal ko ne ko lii suñu dina daf ñu koy tere du càggante ni dama la bañu la topp wala dama la ko bañ a toggal ndax li neen loo ma santoon ma def ko waaye wax dëgg yàlla lii suñu diine moom moo ñu ko tere aw ma sañ-sañ ci def ko loolu li ko ci gënoon mën a dimbali mooy jëkkëram mu toog ñu waxtaan ak euh, seen soxna soosu fexe ba comprendre loo ko lool pour mu ko koy bañ a togg loo loolu moom mooy xëy na loo xam ne mën na koo def mais bu mu nekk loo xam ne day nekkaat sabab ci muy am yeneen taxawaay yoo xam ne dina ko taxaw ci digganteem ak moom yoo xam ne jaaduwul wallahu alam tayib léegi kii euh, mu ne bu fekkee ni jamono bu ji bu njëkk nit ñi dañ doon lëkkaloo def mulaazama ak boroom xam-xam pour mën a jël tarbiya ci ñoom te loolu gis na ni dafa yombatul léegi looy dénkaane ci wàll googu ala kulli xaal li ñu tuddee al mulazama wal rihla ila ahli al ilm mooy dem dem tukki dem ci dëkk nekk ci borom xam-xam di di di takkoo ak ñoom di jàng ci ñoom loolu lu xewoon la ci jamono ku mel ne imaam Buxaari daf daan wax naan tukki naa dem ci ay dëkk dajeeg lu mat junni borom xam-xam nga xam ne ku nekk ak li ngay jàng ci moom ku nekk ak li ngay jële ci moom ñii ci xam-xam ñii ci jikko mu am lu bari lu mu daan def ci ñoom loolu wax dëgg yàlla dem na ba jamono yu mujj yi daanaka dafa xeew yi amatul ci ñiy jàng ak ñiy jàngale ñiy jàngale dañuy chargé trop amatuñu jot pour mën di toog di am ay xalaqaat di nekk ci ay jotaay yoo xam ne euh, tullaa bi dañuy mën di ñëw di di di nekk ñoom di jële ci ñoom suba ak ngoon loolu bareetul waaye am na yeneen mbir yoo xamante ni mën na koo mën na ko mottali mooy liggéey am ci ñoom nga koy mottali ak lu mel ne ay kaset ak téere bind nga koy jël ko mottali ko loolu xëy na moom moo fi des mais tamit fexe ba saa boo mënee am ci ñoom dara nga nga bañ koo yàq ndax léeg-léeg tamit borom xam-xam dëkk fenn jege la nga mën di di jariñu ci moom nga koy sàggane ba loolu loolu loolu jóge fi ngay wëlbatiku di di di ko joytuwaat ndax bari na kuy jooytu mulazamatu ahlul ilm léeg-léeg mu xaw a yomb ci moom mais du ko exploité sarahatan sarahatan léeg-léeg mu xaw a yomb mais du ko exploité yàlla na ko yàlla gën a yombal fadale léegi kii mu ne bu fekkente ni photo ci moom ni mu waxee bu ni photo dafa nekk lu daganul lu xaraam wala loo xam ne charia da ko interdit mu ne léegi lu tax bu ñuy def genre jataay yu mel nii cameraman bi maanaam du yem ci kiy def waxtaan bi kese bañ a jël mawloo bi daal loolu la bëgg xam naa ku ci wax coow li mooy lu tax muy caméra ala kulli xaal lu tax muy caméra loolu mooy li njëkk ci wax ji lu tax muy caméra te ñi ngi jël ñi ngi koy enregistré ci ci kàddu ci wax lan moo tax léegi image bi ban njariñ la bu fekkoon dafa am ay mbir yoo xam ne lu pédagogique la lu ñuy exposé wala ñu koy wane nga xam nit ki bu ko xoolul ci image xëy na du ko comprendre d'accord naa ñu jëfandikoo caméra comme moyen pour mu gën a mat ci jàngale parce que dafa am benn aspect pédagogique bu ci nekk mais nit ku toog di wax rek nga fixé ko caméra te fichier audio audio yi nekk fi man gisuma saraxatan njariñ bu bari bu ci nekk rawatina di filmer mbooloo mu toog di déglu seen waxtaan boo paree fu ne nga ko mën a tegi jee ci loxo ku ne la mën a tegu lu xew la rawatina ci mbokk yi mi ngi commencé di gën a jël ampleur mais sara allahu alam moo xam ñoom njariñ liñ ci gis mais man sama jëmmi bopp laay wax gisuma njariñ lu mu am gisuma njariñ lu mu am cassette yi yi nga xam ne moom la ñuy déglu doy na ci sëkk sëkk sëkk sëkk doy na ci sëkk comme moyen pour mën a dégluwaat ñu doon wax mais filmer ko moom allahu alam allahu alam kii mu ne ndax pour nekk sunnit dafay laaj daal di dem tàggu ci maanaam waajur bi ba am maanaam euh, permission maanaam pour dund sunna est-ce que dafay jaadu nit ki tàggu ji waajuram ba am na isne ci loolu soo koy jëf ci tarbiya bi xam naa la bëgg a laaj abadan abadan bu ñuy wax wàllu tàggu ay waajur loolu dafa am nañ koy déggee du caagante ni dañ ne boo gisee njub yàlla subhanahu wa taala wan la lislaam nga war a tuub dugg ci lislaam nga da ngay tàggu sa waajur loolu mbiru yàlla la yàlla moom lañ ciy jiital ci keneen ku mën a doon même jihad bi ñu doon wax dañ koo wax noonu ci biir wax bëlëf ko ndax ñoo ko tey pour gën a bëgg li ñuy wax mu feddaliku mais am na ay tafasil yu bëri ci am jihaad bu nekk jihaad ay maratib la day nekk léeg-léeg fardu ayn léeg-léeg day nekk fardu kifaaya jihaad am na fu muy toll sax nit ki day dem jihaad ji kenn du fi nekk naan ko tàggul kenn mooy fu toll ci ci taraay ci dëgëraay nit ki day dem mais jihaad boo xam ne fardu ayn fardu kifaaya la am na mbooloo jullit mu fi nekk mën koo taxawee nit ki sawar pour bëgg caa dem te ay moroomam a ngi fi bu demul woon ñu dem kooku dañ koy wax nekkoon a dem tàggu ji ay waajuram naka noonu yi tamit yenn ci jaamu yàlla yi nga xam ne ay nawafil la comme na ko imaam Nawawi waxee ci xadisu Jurayr bi ñu doon wax sànq ci sharh Sahih Muslim daf ne xadis boobu la ci ne bëri na ci loo xam ne ay naafila la ci jaamu yàlla topp see ñaari moo ko gën topp see ñaari moo ko gën ndax waaj da doon julli waajuram woo ko mu continuer julli mu wuyuwul waajuram te bi ko waajuram bi ñaanalee loolu daf koo dal mu wane ne kon dafa waroon dagg julli bi dem wuyu ji ko mu ne kon am na sax ci ay naafila ci ay jaamu yàlla loo xam ne topp waajur moo ko gën a màgg li koy gën a firndeel xadisu ibnu masud bi ko bi mu laajee yonente bi alayhi salatu wasalaam ne ko ayul amali ahab ayul amali afdal lan ci jëf yi moo gën a màgg ca yàlla daf ne ko julli ci waxtoom mu ne ko ban mu ne ko topp say ñaari waajur def njëkk jëme ko ci say ñaari waajur mooy wane ne kon li mu gën ci ay jaamu yàlla lu bari la lu bari la gën ci ay jaamu yàlla mais kanta ci wàllu ay lislaam wàllu njub nga ne da ngay tàggu loolu kenn waxewu ko noonu li ñu wax mooy ci wàllu jëf yi ngay def am na ci yenn jëf yoo xam ne mën nga cee sàkku seen diggal léeg-léeg nga gis nit koo xamante ni même ci wàllu ay décision yi muy jël ci mbiru dundam lu ci bari du ci tàggu ay waajuram wala da leen koy yëgal du leen tàgguwaay da leen koy yëgal genre doxalin yu mel noonu laay bàyyiloo xel mais du caagante ni dañuy wax ne booy dund sunna sax da nga leen di tàggu allahu alam fadale mu ne looy wax ci euh, góor gi labat ñaari soxna à fois ala allahu alam bi muraadihi yàlla moo xam lan moo jubluwaayam ndax daf leen bëgg a takkandoo ñoom ñaar ñëpp wala déet mënu ma wax ne lu lu xaraam la loo xam dañ koo tere wala déet waaye na ragal yàlla ci bu fekkente ni dafa bëgg a takk kenn pour bañ indi ay problème ak ay jaxas na yem ci kenn bu fekkee dem na ba takk ko mu xam ne takk na ko bu fekkee takk ko mu jàll ci keneen ki nga xam ni moom xelam nekk na ci am na rafet ci moom njortu mu dem mu labat kooku mais topp jigéen ñi rek fu ne nga dem fa naan damay labat léeg-léeg sax labat yooyu dañ ko war a xoolaat yu bari da ci laxasu waddala cheikh tayib mu ne góor guy léttu ndax loolu dafa sax ci sunna léttu xëy na léttu ak am karaw gu gudd dajale ko boole ko xëy na ñaar yooyu bokkul ndax léttu ci jigéen lañ ko xame ci jigéen lañ ko xamee mooy mbaaxu jigéen mais kanta góor loolu du mbaaxam góor yonente bi alayhi salatu wasallam daan na am juma wala limma yonent bi alayhi salaam daan na am karaw gu bari wala wafra ñett la woon muy wala ja yonent bi alayhi salaatu salaam daan na am euh, karaw goo xamante ne bi léeg day ñëw ba ci day ñëw ba ci ker nopp yi léeg-léeg mu nekk ci diggante ker nopp yi ak mbagg bi léeg mu daanu si ba ci mbagg yi muy karaw gu guddi goo xam daf ko daan toppatoo di ko wàcce ci ginnaawam waaye saxul ne daan na ko létt te buñ delluwaatee ci usul yi mooy ne jigéen bu fekkee moom lañ sant muy léttu ñu tere jig ñu tere góor muy niroo niroolu ak jigéen loolu asla la buy wane ne kon góor moomul léttu góor moomul léttu tayib eh, mu ne wàllu tabarruj bi dafa bëgg kon ñu définir ko dëgg-dëgg la mooy tabarruj tabarruj mooy li ñu wax sànq l'islam lim tere mooy li nga xam ne jigéenu jaahiliya yi daan nañ ko def ci di génn di baraj baraj yi bu ñu waxee génn mooy génn bi ñu daan génn di jaxasoo ak góor ñi génn bu bari bi ñu daan génn di jaxasoo ak góor ñi loolu mooy tabarru ci yàlla subhanahu wa taala tere tere ko ne waqar na fi buyutikunna waqar na na mooy nañu sax nañu toog ci seen kër ya wala tabarraj na nga gis ne kon wala tabarraj na tere la boo xam ne dafay feddali ndigle li ndigle li mooy saxal ci kër yi tere bi mooy bul di génn di baraj baraj yi comme ni ko ceddo yi daan defee comme ni ko njëkk jigéen ñu ceddo yi daan defee nga gis ne kon lëkkaloo am na diggante li mu leen digal ak li mu leen tere mais du caagante ne dane toog leen ci kër yi waaye bu leen di solo ay sol yu rafet te waxu leen loolu waxu leen toog leen ci kër yi bu leen di sol loo xam ne taar la taar bi taar wàllu taar ak wàllu sol l'islam am na ci yeneen texte yoo xam ne leeral na ko bu baax wax yan teggin la ci la ci la ci la ci digle mais kanta jëmmi tabarruj ci boppam liñ ci namm mooy yàlla subhanahu bi mu diglee toog bi ci kër gi sax ci kër gi moom ci ndaw si ndax loolu mooy li gën a mucc ci moom daf ko daal di tere génn bu bari bi loolu waral xataa jàkk sax yonente bi alayhi salatu wasallam ne buyutukun buyutuhunna xayrun lahunna laa tamnau ima allahi masajid allah wa buyutuhunna xayrun na bu leen di tere jigéen yàlla yi ñiy dem ci jàkka yàlla yi waaye toog ci seen kër yi moo gën ci ñoom toog ci seen kër yi moo gën ci ñoom loolu jigéen ñu jigéen ñu bëri tey seytaane mën na leen ba al aks la ñuy def yaakaar nañu julli ci jàkka yi surtout lu mel ne jumaa yaakaar nañ ni moo gën toog seen kër julli la chaque ne déglu xutba lu baax la mais mën na ko déglu ci ci cassette wala mu déglu ko ñu enregistrel ko ko mais li ndaw si war a xam par principe mooy ne jumaa non seulement warul ci moom mais julli toog këram moo gën ci moom léegi yow nga fekk loo xamante ni mafdul la nga def ko mu nekk fadil mooy loo xam ne gënul nga def ko mu far nekk nag lu gën ba xew ba léegi kenn dootu ko tardé maa loolu njuumte la boo xam ne bu ñu moytuwul seytaan na ci mën ba sax dégg ay soxna yoo xamante ne dañuy gis seen mbaax ne dañuy dem jumaa pour déglu jumaa pour déglu xutba li ci njëkk mooy ñi leen njëkk a indil ay problème mooy yenn ci mbokk yu ragalul yàlla yi ubbee ne koo xamante ni gis na mbaaxam mën na dugg ci jàkka loolu lu doy waar la boo xam ne dama koy dama koy wax ne amul tegtal buy wane ne dañuy tere jigéen mu dugg ci jàkka loolu ku ko wax waxuloo loo xam neel yow xamuloo mais am na tegtal yuy wane ne jigéen bu gisee mbaax gi dugg ci jàkk jàkka pour loolu jàkka pour loolu yàlla subhanahu wa bi muy wax naan yaa ayyuha alladina amanu la taqrabu salata wa antum sukara wala junuban illa aabiri sabil hatta taalamu ma taqulun wala junuban illa abiri sabil xatta taxtasilu yàlla subhanahu wa bi muy wax naan yéen ñi gëm yàlla bu leen di jege jàkka yi bu leen di jege julli fekk ne àndoo leen ak seen xel ba baa seen xel di si wat ci yéen loolu julli la loolu julli la assolaa foofu julli lañ ko tekkee mais bi mu ne wala junuban illa abiri sabil borom xam-xam yi musalla lañ ko tekkee fa ñuy jullee lañ ko tekkee ndax ba mu ne bu ngeen amee janaaba bu leen jege julli lu dul ngeen di romb ñu ne romb moom ci jàkka rek lay am du am ci julli nit du romb julli jàkka lay romb ndax jàkka ji moo amoon ay buntu ci jamono yonent bi alayhi salatu wasallam nit ñi daan jaar ci buntu yi di génn ci jàkka ji dox seen soxla jamono jooj nit ki bu amee janaaba mën na dugg ci jàkka ji génn dem lijjanti soxla boobu mais dañ ne ko bu mu toog loolu lañ tuddee al mukuus fil masjid mooy toog ci jàkka ji dañ ko koy tere fekk ne mi ngi am janaaba am xadis bu ñëw di xadisu ali mais dëgërul trop laa xillul masjid li li li li mujnib xadis la boo xamante ni dëgërul am nañu ko taxsin waaye dëgërul ci wàllu weram beneen xadis bi ci gën a dëgër gën cee wér mooy xadisu Aïcha naawi lii alxumra min al masjid qaalat inni xaid qaala inna xaydatuki laysat fi yadik yonente bi alayhi salatu wasalaam bi mu wax Aïcha ne ko jox ma sijaada bi ci jàkka ji fekk mi ngi ci jàkka ji Aïcha nekk ci néeg bi mu ne ko dugalal sa loxo nga jottali ma sijaada bi Aïcha ne ko damaa am janaaba damaa am xaydu dama am xaydu mu ne ko sa xaydu nekkul ci sa loxo sa xaydu nekkul ci sa loxo mooy sa loxo yi ngay dugal ci jàkka ji tegtalewul ne da dugg ci jàkka ji sa loxo bi ngay dugal ci jàkka ji bokkul ak yow sa jëmmi bokk mi am xaydu nga dugg ci jàkka ji buñ la tere ne la boo amee xaydu bul dugg ci jàkka ji dugal sa loxo dugg ci loolu di teg tegtale ne kon li ay Aïcha wax ci la fekk mu ragal a dugg ci jàkka ji ba loxoom sax mu jàpp ne waru koo dugal budul woon dëgg yonente bi alayhi salatu wasallam du ko ci saxal loolu ñu tuddee iqraar loolu di firndeel nekkoon kon ku am xaydu dugg ci jàkka beneen bi ci des mooy am mooy man li ma jaaxal ci mujj jamono mooy fit bi ñu am maanaam buñ nee la boroom xam-xam yu bari nee nañ nit ki bu amee janaaba bu amee xaydu du laal jàkk du laal euh, mushaf ne la benn boroom xam-xam mës naa wax ci taabiin yi ne mën na koo laal kenn ci monde ci àll ci àllam ci àdduna yëpp ute ak loolu yëpp mën na nekk Ibn Hazm wala kenn ci ñooñu nga attana def loolu mu nekk saw doxalin woo xam ne dootoo ci raf maanaam dootoo ci raf boo ko dee def da ngay jàpp ne li ngay def nii dëgg la joo xamante ne ku ko deful sax da ngaa réer maanaam man fit boobu moo ma jaaxal ci léeg-léeg ñun ni ñuy déggee diine mooy wax ju tumuranke naka nga ko mën a léeg-léeg wéyali def ko sa doxalin boo xam ne boo koy def yow da nga yaakaar ne lii mooy li normal léegi da nga ci daal di déggee ne léegi daal nekk mën xaj boo xam ni soxna yi dañuy am seen xaydu dem jaaxaan ca jàkka ja toog parce que diw ubbee na leen ko beneen bi ci bi ci bi ci biñ ci war a seetlu mooy lu mel ne yonente bi alayhi salatu wasalaam ci xadisu ummu atiya bi muy waxee naan ci al adha mooy ci lu mel ne tabaski wala korite yonente bi alayhi salatu wasalaam digal na leen ñu génne jigéen ñi lan la wax daf ne digal na leen ñu génne même sax ñi nga xam ne alxuyad ñi nga xam ne dañoo nekk ci jamonoy xayd gis mbaax du ñuy àgg ci gis mbaax mais ñi nekk ci jamono joo xam ñi ngi gis seen mbaax daf ne am alxuyad fa yatazil na al musalla daf ne ñi nga xamante ni bii dañoo gis seen mbaax bu ñu ñëwee du ñu toog fa ñuy jullee dañuy beru waaw beru fa ñuy jullee te du jàkka bu fekkee dañ ne même buñ génnee dem ci bisu iid dañ ko def te foofu ñu doon jullee ab bayal la mais comme nit ñi fañ toog di fa jullee te gisuñu mbaax ñu ne nañ beru naka ñu nekkoon kon dagan ñu dem ne faax ci biir jàkka ja fa nga xam ne julli moo fay yóbbu nit loolu mënul nekk loolu xata loolu mooy foofu njëkk ñaareel bi ci des yow jumaa julli moo fa yóbbu nit ñi ak déglu xutba julli ak déglu xutba nit ki bu tardé woon xutba fekk julli bi am na juma loolu moo tax ñenn ñi wax ne xutba yi ñaari xutba yi mooy rey mooy fay ñaari rakka yi nga xam ne moom la ñu waroon julli ci tisbaar nekkul wax ju dëgër ndax bu nekkoon wax ju dëgër boo ko tardé kon boo paree da ngay fay ñaari rakka alors que boo ko tardé boo jullee ñaari rakka yi am nga jumaa nit ñi looloo leen fa yóbbu yàlla subhanahu wa taala akub yonentam farataaluñ ci jigéen mu dem julli jumaa nga wëlbatiku wat amaat ngant loo xam ne day waral ci yow waroo dem ci bërëb boobu nga ni damay dem pour déglu ju xutba bi loolu ban doxalin la am nga ay moyen pour mën a am lu mel ne cassette wala lu mel ne fichier pour après déglu bu dee dangay jariñu te kañ lañ fi xër sax ci xam-xam ba àgg foofu jotaay yi xam-xam yi ñu ngi fi kenn demul jàngi ji borom xam-xam yi ñu ngi fi kenn euh, yittiwoowul xam-xam bi mais léeg-léeg mbooloo mi ak mba mbaboor bi ak àndandoo bi moom moo ñu ci yóbbaale kenn du bëgg a tardé buñ gisantee ku naan ku ne naan sa morom ajjuma tardé nga diw xar na fa. wala yu mel noonu kenn du bëgg a tardé wala information yu bees yi ñu fay jokkalante dégg naa yu tàng yu bees yépp foofu lañ koy joxante yi xew ci résumé bi xasaadul usbuu revue de presse foddale tayib ci alxaya maanaam kersa moom mooy lan buñ ko xoolee ci islam alxaya jikko bu màgg la ci lislaam bi yonente bi alayhi salatu wasallam doon wax naan alxaya min al iman kersa ci ngëm yàlla la bokk yonent bi alayhi salatu na romb benn waay <clears throat> muy xas wala book muy yedd rakkam ci kersa naan ko da nga bëri kersa trop yonent bi alayhi salatu ko daahu fa inna bi xayr yonent bi alayhi salatu ko bàyyi ko kersa du indi lu dul yiw yiw rek lay indil nit ki kersa lu baax rek lay indil nit ki doon na wax itam naan bokk na ci li nit ñi dab ci li nga xam ne moom la fi yonent yi bàyyi woon inna mimma adraka annaasu min kalaami nubuwati al ula ida lam tastaxi fasna ma chita boo demee ba rusatuloo defal lu la neex ñu tekki ko ay tekkin yu bari boo rusul defal lu la neex mooy bu fekkee li ngay def amul lenn luñ ciy rus bul am loo ciy xool defal comme li ngay def lu baax la loo xam ne amul luñ ci war a rus defal lu baax la heure julli jot na ngeen dajaloo war a julli lii seen àq la yéen a ngi war a julli ci fii nga xam ne nit ñi dañ leen di romb xool loolu amul luñ ci war a rus isa lam tastaxni fastastaxi fasna ma chita kon defal lu la neex defal am ñu ko tekkee noonu mais li gën a wér mooy tekkin bi ñu koy tekkee mooy nit ki bu demee ba kersa dañ ci moom jombootul def lu ko sob nit ki bu demee ba kersa dañ ci moom jombootul def lu ko sopp kersa nekk jikko bu mag ci lislaam nekk jikko bu baax bokk ci fi ko nit ki war a gën a firndeelee gën ko faa feeñal muy digganteem ak boroomam nit ki fexe dem ba am kersa ci digganteem ak boroomam mooy rus yàlla di la gis ci loo xam ne daf la koo tere wala yàlla ñàkk laa gis fa nga xam ne fa la la pour nga nekk fa kersa googu nekk ci diggante nit keeg boromam loolu muraqabatullah moo koy def ci nit ñu koy tuddee martabatul ihsan beneen bi ci des mooy kerse bi ñu am ci digganteem ak ay moroom yi mbindeefam kersa jikko bu màgg la ma dañuy jeexale ñaari laaj yi ndax mi ngi dugg guddi 18 heures la ñu waxoon te 18 heures 23 jot na donc léegi ñaari laaj yi benn bi kii dafa ni moom dafa bëggoon euh, ñu laayoo ko biir ci benn fee mooy euh, jullit yi parfois dañuy dem di confier wu ci ay ñu ñoo xam ne ñoo leen tane ci xam-xam bon pour bañ a transgresser tarbiya bu war a am diggante ak boroom xam-xam parfois nga confier wu ci moom ci say mbir nga génn ci biti dégg ko ñu koy nettali ci mbedd mi mm-hmm. mu ne léegi pour mu tegu ci yoonu tarbiya bi ñuy wax nan lay jëflante ak loolu ba boobu fee loolu bu fekkente ni kam ko waxoon di boroom xam-xam boobu moom moo ko waxe te waxee bi mu ko wax daf koo waxee tudd turam ne diw moo fi ñëw ne ma nangam ak sàngam wax ma nangam ak sàngam nit ñi wëlbatiku di ko waxtaanee borom xam-xam boobu juum na la mu def jaaduwul bu fekkente ni waxeewu ko waaye dafa joxe ab dars ci xew-xew boo xam ne daf koo wax comme ni yonent bi alayhi salaatu daan faral di def ñu wax ko mbir mu ñëw toog ci ci ci min minbar bi ne dégg na ay nit ñuy def nangam ak sangam ak sangam daal di ci joxe ab jàngale ñépp jariñu ci donte ñenn la concerné du leen woo ñoom kase lijjanti ko ak ñoom mais daf koy wax ci mbooloo mi yépp mais du cité tur bu fekkee ci anam boobu léeg-léeg mën na am njariñ allahuma illaa lu dul bu ko waxee ñu soupçonné ne diw la mais na ko wax ci façon boo xam ne kenn du jàpp ne diw la pour bu fekkee dafa bëgg a jariñ nit ñi loolu léeg-léeg dina mën a nekk léeg-léeg itam mën na bañ nekk ne ci borom xam ba la ko la la siiwee ndax da gis koo xamante ni problème am ñu bëri dañ ci laal laal ci ñu bëri ba affaire bi dem ba daanaka dem ba àgg fu muy war a ñu soog ko àggale ji ci diw ne nañ dem ci borom xam di wax ko fekk ne ba affaire ba tàmbalee il que mu dem consulter borom xam-xam boo wax ak moom day dem xool ay xaritam yi ko jege soxna sa tamit xool xaritam yi ko jege wala yu mel noonu ku ne di ci waxtaan ak sa say xarit wala say jegeñaale ñu koy nekk di ko mun mu ne ba affaire bi dem nag ba jël benn empleur bi ñu soog a dem àggale ko ci borom waxtaan ceeg moom ko mu siiw ñu ne est-ce que du diw miñ demoon ci moom moo ko siiw nañu am rafet njort ci moom bu boobaa nañu am rafet njort ci moom nañu am rafet njort ci moom wallahu alam tey ci laaj bi ñu mujjee kiit moom benn soxna rek bi mu déggee wax bi nga wax ci ku am mbaax jigéen ñàkk laa alxuraanam wala mushaf dafay laaj léegi nu mu mën a laal daal est que am na lenn ci xuraan nu mu mën a laal bu amee xayb lenn ci borom xam-xam dañoo def tarxiis ruxsa bi ñu def mooy loo xam ne duñ ko tuddee mushaf parce que kitaab bi yàlla subhanahu wa taala wax tere yonente bi alayhi salatu wasallam wax ko tamit ci xadisu amr ibn hazm an laa yamassal mushaf illa tahir ñenn ñi dugg ci jëm koo interpréter ci façon bu xóot lool pour ne tekkiwul ku ku làpp tekkiwul ku làpp muy xadisu euh, amr ibn ibn hazm léegi li nga xamante ni lenn ci borom xam-xam yi wax nañ ne mën na koo laal mooy loo xam kenn du ko tuddee mushaf kenn du ko tuddee kitaab mooy ab xaaj la ab juz'u la pour mu mun di ci muraajaa bu fekkee soxla na ko ñenn ñi ne bu fekkee dafa gis xayd wala mu gis bu mu laal dara bu mu laal dara même jàng dañ ne bu fekkee daf koy def ci anam boo xam dafay muraajaa pour bañ a fàtte ci anam boobu la ko soo soog a war a def bu fekkee nag xades bi mu am xades asgar la ci lañ ko soog a permettre mu laal lenn lenn ci quran mais pas du lépp alquran wallahu taala alam wa sallallahu wa sallama ala abdihi wa rasulihi muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain